بِآيَاتِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ayuha almushahidun alkiram aleykum wa wa barakaatuhu waaleykum asalaam wa yi tedd yi nuy jàkkaar lool ñu leen di nuyu te di leen ziar di leen balaq di leen balwaq di ñaan yàlla yal yàlla bala jéggal sopp da baax tv dellusiwaat na ak yéen ci émission yi leen di jagleel ay bés yu jot ci waxtu wi tey nag di suñu njëlbeenuk émission bu ñu door ci tontu laaj ak tontu di ci feggoo ak sunu sëriñ sunu soppee shérif bi nga xam ni dafay dog yoonu mu baax rek nekk ci ba ko ci fekk mu baaxaale la ñaan sunu borom subhanahu wa taala yal na ko may wér sàmmal nu koo bàyyi sunu kanam bala ma leen bàyyi nuyoo yi bala ma koy bala ma bàyyi yéen mu nuyoo yéen Abdoul Aziz comme ni ngeen ko xamee moo nekk ci technique bi moo mbokk mi baax yi Abdoul Aziz Mm-hmm. Abdou Aziz Diop ñaari Abdou Aziz mm-hmm. ak sunu public bi nga xamante ne ñu ngi toog di seetaan waxtaan wi kon chef dama lay bàyyi nga nuyoo ñu door a ñëw ci waxtaan wi ginnaaw moo la waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yendoo Cheikhul Kabir wal Ustaazul Kabir wal Muqaddamul Kabir <laughs> loolu bari na di Oustaz Alioune Mbaye Sud <laughs> FMI loolu bëri <laughs> na suñu yëpp yaay borom tabaarakallaahu loolu la la yàlla defal ndeysaan te yàlla na sax dàkk te gën a bari nag amin amin te gën a yokk ndax yow nit ku baax nga ndeysaan nitu jàmm nga waaw nit bu nekkee nitu jàmm rek ndeysaan Eh, wax dëgg yàlla loolu la la ñëpp seedeel dëgg am jàmm man a kaf mën a ree kon nag ñu ngi nuyu mbokki téléspectateur yëpp yu góor yi ak yu jigéen yi mm-hmm. yu mag yi ak yu ndaw yi ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew ci diaspora bi yëpp dëgg la ñu ngi leen di nuyu ci baat bi ñu yàlla boole mu di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rawati nag ñi ci diaspora bi ñëpp. Mm-hmm. bugguma tudd benn dëkk. ndeysaan ndax samedi bi passé rek dama tudd ñetti dëkk waaye coûté na ma cher. <laughs> ku ne woo na ci altine bi naan ma. <laughs> ñun nag ñun nag bokkuñ ci. <laughs> waaye kon nag soppe yi ci àddina bi yëpp. cinq continent yëpp fu fi waay nekk hmm. di soppey Chérif Dabakh TV di ko sab di ko seetaan hmm. ñu ngi lay nuyu te di la sant te di la gërëm hmm. te di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek ci zaahir ak ci baatin yal nay njëriñ buy jëriñ ñëpp fi duniya wal aaxirat yi di nuyu nag suñu kilifay diine ji oustaz waaw ñoom ñi nga xam ne bu ñu mënee lii ñoom ñoo tax ndax bu duloon ak ñoom nii islaam yombee ci ñun ñu jot ko du am kon nag man lam yashkuri naasa lam yashkuri laa sukurul waajib ah, hmm, hmm, kon nag hmm. farata la ñu sant leen gërëm leen te ñaanal leen yàlla suñu kilifaay diine ci nag xalif généraux yi ci réew mi yëpp yëpp yëpp yëpp nga xam ne sax duñu xalif général waaye ñooy xalifaay seen kër bàyyi ndeysaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ma jël nuyoo yooyu nag teg ko ci loxol kenn koo xam ne dinañ ma ko nangul ndax li mu représenté moo tax <laughs> te ñëpp nangu nañ ko muy Cerno Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Alhaji Omar al Fouti ndax ku ne diine ci lislaam hmm. ne Cheikh Oumar moo ko fi njëkk a tasaare. dëgg muy diine muy tariqa. Mhm. kon nag jël nañ suñu nuyoo maak yow. ak ñi ñuy seetaan yëpp. teg ko ci loxol Thierno Bachirou. ca lay gën a mat ca lay gën a jot. moom mu jottalil ñu ko nag mbot mbokk naataango. Mhm. xalifaam yëpp. di leen ñaanal yàlla it yal na leen yàlla may gudd fan. amiin yàlla defal leen wér. wér gi yarami yaram wér gi yarami xol ak wér gi yarami roox. amiin li ñu naal ak li ñu bëgg ci diine ji. ak tariqa ba ca. waaye ŋànk yàlla may leen ñu mottali ko ala wajhil ardi amiin koor gi ñu dugg nag hmm. yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim hmm. hmm. yeggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp luñ ci jàmm mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu teg ko fa daan tegal yonent bi sallallahu alayhi ak ne yonent ko jiitu woon yëpp fa leen daan tegal seen jaamu yi ak nam ko daan nangoo yàlla na ko nangoo suñu yos yi te teg ko foofa bàkkaar yu ñu am ak yi ñuy am ci biir weer wi ak yi ñuy am gannaaw weer wi yëpp yàlla xam na ko yi ñëw yi ñëwagut yiñ def hmm. yiñ defagut yiñ tey yiñ teyut hmm. yiñ xam yiñ xamut yi nëbbu yi feeñ hmm. yëpp yàlla xam na ko hmm. ci yërmandeem ju yaatu ji nga xam ne moo ko waxal boppam ne wa rahmati wasiat kulla shay'in ilman hmm, ñu ngi koy ñaan ci yërmandeem jooju mu effacé yëpp yëpp yi dox suñuy diggante tem ne yoonam nekku ci kenn ku ne yaa koy fayal sa bopp yàlla na tibb ci màngasinu yiwam ya fayalee ñu ko ba boo ëllëgee yàlla mu ñu kenn topp dara dunya wal axirati nag yàlla may ñu bor yu bare yi nga xam ne moo dox suñuy diggante ci wàllu wërsëg ñu di ko lebante mm. yàlla nañu yàlla may wërsëg wuñ fayee bor yooyu yëpp amiin amiin ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bor baaxut bor baaxut bor baaxut yàlla nañu yàlla may luñ fayee suñuy bor ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla suñu techniciens yu baax yi mm-hmm. Abdoul Aziz Seck Abdoul Aziz Diop ah ñoom ñëpp ñu tuddee leen Cheikh Al Hadj Abdou baax Dabakh yal na yàlla taxawu leen te fay leen seen taxawaay ci Cherif Dabakh TV ak yeneen techniciens yi nga xam ne yëpp tey ñëwuñu waaye seen liggéey moo tax ñëwuñu kenn ku ne dafay jàpp fii kii jàpp fale rek mm-hmm, mm-hmm. su ko defee kon daal oustaz lii moo doon kàddu yu nuyoo yi ak sant yi ñaan yàlla nag weer wii yàlla na dellusiwaat déwén fekkaat ñu fi fekk ñu ngi wér ànd ak wérle mucc ak muccale ak ay milliards yu baree baree baree baree baree ba kenn ku ne li nga bëgg ci diine jeeg mbokk ak tarixa nga def ko ko yàlla def yal na ko yàlla def yal na ko yàlla def defal ko ñëpp nag ci barkeweer weer wi ndeysaan ndeysaan bismillah baarakalaa jërëjëf Cherif macha allah loolu rek doyoon na émission ndax kilifa yi nga jëkkee ñaan ñooy seen jàmm mooy seen jàmm mooy suñu jàmm hmm. ndax euh, kilifa galaaj la hmm. te ku wéeru ci dara mu wóoleen loo rey sa cëslaay mm-hmm. boo sañoon dara du ko gor boo sañoon dara du ca sikk mm-hmm. kon ñaanal leen dafa di farata ci ñun bàyyi leen xel dafa di farata ci ñun mm-hmm. kon sa ñaan gi mi ngi ñuy yóbbaale ñi tam ñu ngi bootu ci sa ginnaaw di bootu ci ñoom di jabootu ba faw ñaan gi nga ñaan tam ci réew mi am na solo ndax booy xool ni ñu ci jamonoy koor te booy dog ñaan nga nga ñaan ni allahuma laka sumtu wa bika amantu boo nee allahuma laka sumtu yàlla yow yaa dong yaa tax ma woor mun la waawaaw ndax wéet nga ak potu ndox mi te te te te te naanoo mm-hmm. wéet nga ak ceeb bi te naanoo mm-hmm. wéet nga yow dong te gisoo ma gisuma la mm-hmm. ñeema woo koon laal kon boo nee la ka sumtu ah kay nangu naa ko ba bi ko amantu awaw ah gëm gëm gi ma gëm a tax nga def loolu ñu tekk na loo bëgg nga ne fax firli maa qaddamtu may am dix huit ans dix neuf ans trente ans quarante ans quarante cinq mm-hmm. lépp lu ma defoon ci bàkkaar ci gën. wallaahi. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu donc yow tuuti nga xale mu déedéet ba ma àqar. ak yiy ñëw. <laughs> kon loolu nga ñaan. bàkkaar yiy ñëwoon yiy weesu. yaa ñu xam ak nu ñu xamul. ak yii ñëw te xamuñu ni muy tëdd. yëpp yàlla na kenn jéggal. amiin yaa rabbi. barakallah kon ñu ngi lay sant baax. kon mën nañoo ñëw mën nañu suubu joxtaan. waaw bisimilah tafaddal. <laughs> maskuura baarakalaa si sama laaj bu njëkk yow mm-hmm. mooy lan mooy valeur ci nit mm-hmm. ba yàlla taamu ko ci li mu bind yëpp ni ko yaay sama représentant ci kaw suuf mm-hmm. roo gi la xol bi la bakkan bi la wala yaram bi la wala xel mi la lan mooy valeur ci nit sa laaj nga laaju philosophie dëgg may wax mbooloo ñii seetaan yëpp nag ni wa sharafil quran lii du luñ préparé. <laughs> moom ngay gisoo sax mu yor. ndax ki toog nii ba ma koy jox rendez-vous 15 heures bàyyiwuma woon xel mercredi bii ndax di lañ ko jàpp. pour ma wax ñépp ne. Hmm. ñiy seetaan programme yi nii lay tëddee incha allah. Hmm. yéen ñëpp seetaan ngeen alfadilatu imaam alxaaji Moussa Guèye. mu yeggal léegi ñu ngi koy ñaanal yàlla te di ko sant te di ko gërëm. Hmm. wax dëgg yàlla li mu wax tey ci weeru koor. jar na rek weeru koor nekk bés bu nekk waaye xam naa ne kon kunte kunte yii ak fayeen yii <laughs> seen àddina tukki waaw kunte kunte yi moom <laughs> démb rek maa ngi koy wax benn ma nuyuwaale ko sama benn njaboot commissaire commissaire de police la commissaire Ousmane Faye ma nuyu ko wax ma woo di ma ziyaare ci koor gi ma ne ko ah yéen ñi sant fay yëpp ak yéen ñi sant kunte yëpp su ngeen bëggee yàlla nangul leen ñi sant fay dañuy sant juuf ah ñi sant kunte ah. sant ay dara ah, su loolu amee daal yàlla dina leen nangul <laughs> su loolu amul nag yéen a xam ngeen nangul seen bopp <laughs> mu ne mu ne d'accord naa ndax bëgg naa ñu nangul ma waaw loola li tax comme man sama yaay Juuf la sant ah. <laughs> te fayeen yi ñooy seen kal sama yaay laay dimbale nag waaw ay dara yi kunte kunte yi ñooy seen kal waaye daal eh, oustaz ñu wax ñëpp programme yi nii lay tëddee incha allah lëndi bu jot. Hmm. à partir de quinze heures. waaw oustaz Alioune bii. Hmm. moo fiy nekk. waaw ba émission am jeex. Hmm. loolu mooy lundi. mardi. man ak moom ñoo koy bokk comme nii. question réponse comme nii. à partir de quinze heures ba ba ñuy jeexal. mercredi. imam Moussa Gueye muy ñëwaat. tous les mercredis imam Moussa Gueye moo fiy nekk. Mm-hmm. de 14h. Ah, ba 10 15h wala mu jeexalee rek. <coughs> beneen bi ci des. Mm. mooy jeudi imam Mouhamad Lamine Diop. Mm-hmm. imam amoo 456 Abdelkader moo fiy nekk. moom nag tafsirul quran lay def. Hmm. fa lillahi alhamdu. incha allahu taala na ko ñëpp kal. vendredi samedi dimanche yëpp nañ ñu topp nag ci conférence yi ci biir dëkk bi. incha allahu taala vendredi bii di ñëw seeraas la waroon nekk comme d'habitude. Hmm. ndax ëpp na fukkeet ak juróom ñu ko fay def hmm. premier ajjuma ci koor gi. xam naa ne dina am ñoo xam ne duñ ko gis ren. waaye loo gis am na lu ko waral kañu fa daan yóbbu muy imaam Abdoulaye Fall yal na yàlla fëgg boppam yal na yàlla yëkkati ko yal na yàlla wéral ko shifaan lahu walana walil muslimina jamian tàmma laa yugaadiru saqaman wala alaman wala asaran wala wala wajaan yal ko ko yàlla defal gannaaw nag dafa wéradi mm. xel day am jinit bët du yenn waaye xam na lu bopp attan ma ne ko nag nañ ñaan yàlla ba nga wér ak jàmm ñu door a yëkkatiwaat conférence bi looloo tax incha allah ajjuma bii di ñëw seeraas du am mm, mm, mm. waaye samdi ba incha allah muy samedi bii di ñëw ñu ngi jëm fii ci Parcelles Assainies déedéet mooy le 16 le 16 mooy samedi ñu ngi jëm Parcelles Assainies ci wetu kër sëñ Moutalla Mbacke ca wetu jàkka ja foofu lañ koy defee insha allahu taala mm-hmm. Mm-hmm. ahbaabu mahmoud alxalil alxasari ñoo koy def insha allahu euh, ca dimanche ba nag mooy arena bii fi ñuy defee làmb ji noonu la de xoolal leen ma date bi le 16 mooy samedi le le 17 ah le 16 d'accord xoolal ma date yi de balaa ma koy jaxase waaw arène nationale bi le 17 la di 17 mooy dimanche noon la le 16 mooy samedi incha allahu le 16 mooy fële kër sëñ Mourtala Parcelles Assainies ca weti jàkka ja ca kër unité 10 fa lañ koy defee ahbab al mahmoud cheikh al mahmoud khalil al xusari le 17 incha allahu it concours la foofu ci arena bii stade arène nationale bii ñuy defee làmb ji mm-hmm. fa lañ koy defee alquranul karim lañ fay jongante mm-hmm. gannaaw nag làmb ji dóor mu daanu la waaw bëñ damm mm-hmm. arkaat toj bët toj tànk damm ñun nag dañ fa bëgg a yëkkati loo xam ne alxuraan la ñuy dóorantee di koy jongantee macha allah waaw ba ku mën sa morom duma dëgg la waaye ca alxuraan lañ koy def ku fa ñëw hmm. incha allah di nga dégg alxuraan ju daw yaram hmm. alxuraan ju neex alxuraan joo xam ne ña koy jàng jox nañ ko àqam kon ñu ngi ciy invité ñëpp hmm. arène nationale le 17 incha allah à parti de 9h samedi le 16 ba it à parti de 9 la ndax ñëpp xam nañ ne ci koor lañ nekk teel a tàmbali teel a jeexal. ayca kon kon programme baa ngi noonu. programme bu ñu ñëwaatee it. waaw ya ca topp yëpp dinañ ko wax mën ko kon nag imaam. kon ñëwal sama laaj bi. sa laaj bii nga xam ne moom nga laaj nag. Hmm. la e, e, woykatu arab waxoon ne. wal mawtu. addaha e, dee mooy njombet gi. waaye laaj bii mooy njombet gi nag. waaye alhamdulilahi rabbil alamin na ñëpp xam ne du question yu ñu waajal mm-hmm. ba ma ko waxee démb dama ne ko seetal lu la neex mm-hmm. nga indaale ko comme question dëgg la boo ko laajee ñu tontu lañ ci xam lañ ca xamut ñu bokk ko maak yow ak ñiy déglu di seetaan mm-hmm. seeti ko lu ma ca xamut dinaa ne xaw ma ko ndax nisful ilmi laa adri loolu la imaam Malik wax genn wàllu xam-xam mooy xamuma waaye laaj bii nga laaj nag fa lillahi alhamdu laaju jamono la sax xam naa ne yow mii kuy topp actualité nga waaw loolu tax nga laaj laaj bi xam nga ni nite dafa neex dafa neex loo jàng-jàng te nite woo hmm. yaag dafa yem kamasalil ximéeri yaxmilu asfara moo tax nag bii sa masalu ladina <laughs> biisal xaw ma masal xaw ma la si masaluhum ka masalil ximeer yaxmilu asfaaran biisa masalu lazi biisa masalul xawmi alladina kaddabu bi ayatina wallahu laa yahdi alqawma alzalimin kon li tax yàlla ne wala qad karam naa bani aadama ñaar rek la ñaar kese la du ñett du ñeent ci li ma xam xam nga waxul wala xad karam naa banil muminina laa muslimina wala tijaaniyina wala qadiriyina wala laayeeniyina wala ibadu rahman wala xad karam naa bani aadam boobu nag moo ñor yàlla la ca des yépp nag ndollent la wala day naa mazid la mm-hmm. dëgg la moo gënal yàlla mm-hmm. waaye dara balaa gën jongante day am su jongante amee ci le premier di am deuxième am troisième am waaye tout court public baa ngi nii mm-hmm. ñooy def jongante bi mm-hmm. loolooy wala xadd karam naa bani aadama course baa ngi nii mm-hmm. téeméeri nit a koy daw ñoom ñëpp ñoo yem ndomba tànk fekk départ amagul su départ amee nag ka ca bopp mooy muumin coupe d'Afrique bi ñu demoon équipe bi nga fa woon jeex na coupe d'Afrique bi ñu demoon nii équipe yëpp nga fa woon du ñëpp a gagné ña gagné nag ka gagné kenn rek la Côte d'Ivoire champion ko moo ko gagné moo tax it bi départ bi amee course bi ñëpp a bokk mm-hmm. waaye ña gagné mm-hmm. mooy yàlla wax ne xad aflaxal muminuuna ñoo ñaa gagné nag mm-hmm. ñoo ñoo sempi coupe ba moo tax wala xad karam naa bani aadama bi ci roox bi na ndax alastu bi rabbikum jaata xaalu mhm. bale boobu jasad amagut boobu yaram bi yàpp ak yax ak der amut mhm. roox moo fa nekkoon fa la yàlla laajee roox yëpp ne leen ndax du may seen borom xaalu roox yëpp gannaaw bi roox yonent bi tontoo salaay sallam mhm. moo njëkk a tontu ne balee ahankañ wala nga ne balaa ahankañ yaay suñu borom Mm-hmm. ci la yàlla door a commencé nag di sélectionner roox yi mm-hmm. ña sësante woon xam naa maag yow ci lañ bokk <laughs> waaw fokk buñ dundee danañ saafu wante danañ jëf la am relation moom am relation dëgg la kon maag yow ca lañ bokk <laughs> ñii ci di ñu seetaan fii toog fii suñu roox yi li pikiirante ci lañ bokkoon mm-hmm, dëgg ña nga jot a xam ñëpp bi nga juddoog léegi ci lañ bokkoon ñi nga xam ci diggante bi ñëpp ci lañ bokkoon ñi nga xamagut te war leen a te war leen a xam hmm. ci lañ bokkoon moo tax ngay jóge fii di dem Côte d'Ivoire di jógee fii di dem Makkatal Mukarram di aji catholique bi jógee fii dem Rome roox ya xamante woon balaa àddina di tukki ñoom ñëpp daañu dajee saafu wante xamante ndax balaa jaa tax te yàlla du weddi bopp kon roox bee tax yàlla di wax macha allah macha allah jërëjëf sëriñ roox boobu nag hmm, hmm. moom la yàlla di teral moom la yàlla di tedd dil mara di itaali macha allah moo tax mbir mi ci roox bi la mm-hmm. jërëjëf Serif wax dëgg yàlla doon bi am na solo mm-hmm. kon ndekete ruux mooy tax nit gën lu yàlla bind lu lul nit mm-hmm. ndax malaaka yi baax nañu lool jinne yi baax nañu lool bàyyi ma yi baax nañu lool waaye nag bi yàlla bindee ba pare ñi fi nekkoon doon ko jaamu dafa woon kii defagul dara waaye kay li ngeen su jootul ko kay ngeen màggal ko mm-hmm. kon li nekk ci moom ba yàlla ne kay leen ngeen màggal ko te julliwul woorul saraxul kon li wax mooy ruux ba ca kaw la woon ca kaw la kon la nekk ci nit ki ponkal mi nga xam ne <laughs> yàllaa ko dimbali mu xam lu bari ñemewuma wax xam lépp <laughs> waaye daal ponkale mi nga xam ne yàllaa ko dimbale mu xam lu bari hmm. muy Seydul Xaaji Malik moo tax mu indi ko ca Mimia wax buxur yi ko yàlla sóob fuk fukki junni fukki buxur yi ak ak ñaar jeex na fukki géej yeeg ñaar yim ko sóob yëpp hmm. acca bismillah loolu <laughs> kon kon kon rooga mooy mooy tax nit ki loolu mooy valeur ci nit mooy valeur ci nit mi mi booba booba ca cee cee eh, alamul mu arwaax waaw mm-hmm. foofu si fa la nekk waaye bu wàccee si kaw suuf mm-hmm. moom du ruux kese moo fi nekk ndax dafa am yàlla boole alamu naa sax waaw alamu naa mm-hmm. léegi gis nañu kon xool daan na ñëw waaw ah, eh, yaram daan na ñëw xel ñëw bakkan ñëw eh, ñeent ñooñu naka la mën a ànd ak ruux waaw ah, kay jërëjëf waay lii la lii soxla waaw <laughs> ah, parce gis nga lii mooy defar société coow li li muy bari bari bari bari dëgg la dëgg yàlla lu defar société rek la soxla wallahi moo tax tubaab yi ak lu ñu bon bon li ñuy saay-saay yëpp yëpp yëpp ñu organisé woo moo tax yàlla na bàyyi leen lu leen neex def mm-hmm. te du leen duma fii wala bu leen di duma fii coppet tuuti lay doon ba ëllëg mu doon leen duma mooy la Serigne Cheikh Tidiane si waaw xamaa la ko mooy la Serigne Cheikh Tidiane si waxoon ne dëgg ju ñu organiser wul. Hmm. mu ne fenn wuñ ñu organiser ko man mu ne ndax yàlla organisation rek a ko ñor. kese tubaab yi ñuy xas ay fen rek lañu yor ndax lu du diine lislaam du diine. waaye ñun ñu yor li gën. Hmm. te mënuñoo taxawal dara dara dara mënuñoo def dara dara dara yoo sax mënuñ ko rey balaa ñoo yoo rey yoo indi yoo tox yoo tox ku ko defal. ñoom jeex na su ko defee nag ak nitee. ok sunu cadre yi xam ñoom fu ñu def. dara yeeg borom doctorat yeeg. daara doctorat wu mbubb la ak doctorat wu discours ak doctorat wax nañ ma baal rek nag waaye lu pal lu palpable. Eh. defuñ ko fi. su ko defee nag. Mm-hmm. xol boobu nga tudd. ak. ak ak xel. ak xel. Mm-hmm. ak ban ak bakkan. ak bakkan ak yaram ak yaram. Mm-hmm. yëpp yàlla tudd ko ci alxuraan. xol nga wax. roox bakkan. ak xel xel yaram. Hmm. mën nga ko delloo ci al anasi al arbaa. est-ce que ñeenti yàlla bind. Hmm. pour nit mën a dund. su loolu amut nit du dund. Hmm. mooy al anasi al arbaa. mooy suuf ndox ngelaw ak safara. yii la yàlla bind jox ko doomu aadama pour mu mën a vivre. dund ci kaw suuf ci tranquillité ci jàmm ak ci dal ndox suuf ndox mm-hmm. suuf mm-hmm. ngelaw ak safara moom la ñuy wax al anasi al arbaa mm-hmm. nit koo gis ci kaw suuf nag am na benn buum ci doon nit koo gis ci kaw suuf moo tax boo demee ci ñiy listixaar am na ñiy listixaaree wet googu kon gars yi yiy weddi yi ñi nga xam ne ah, yiy weddi yéen xam-xam waaw mooy mooy ñàkk xam <laughs> mooy ñàkk xam que koo gis rek ci ñeent yooyu la nekk waaw koo gis rek mu ngi ci ñeenti yooyu hmm. koo gis ci doomu aadama yi bu dul euh, bu dul maa yi hmm. turaab lay doon wala hawaa walla naar yi hmm, benn muy nitu ndox wala nitu suuf wala nitu ngelaw wala nitu safara moo tax soo ko bëggee jàpp sax foog nga xam kii ban la ci yi waaw pour nga mën koo téye mën ko téye rawaan bi téye rawxaanam téye rooxam mhm. donte roox gi nag yàlla rek a ci am accès waaye mën nga ko affaiblir waaw yooyu beneen domaine la <laughs> yooyu beneen domaine la <laughs> xam nga ni la tubaab di ca jàppee fii dëgg la ñu jagat jagatee la yóbbu hôpital mu anesthésie la yëgatoo dara te roox baa ngi fi de waaw roox baa ngi dox ruux baa ngi dox ndax bu ruux bi doxatoon nga dee. waaye bi ñu la anesthésie générale yëgatoo dara anesthésie général xam nga doo yëg dara. doo yëg ñoom xam nañ ñaata heure lañ calculer. Mm-hmm. pour roox bi mën a fudduwaat dañ ko écarter rek. waaw dañ écarter roox bi am na fu mu nekk di bat bati. mooy ca kër ba. dinaa ci ñëw léegi ca xol ba lay nekk di bat bati. Mm-hmm. mais foofa la ñuy e-, isolé mm-hmm. dañ koy isolé écarter ko. pour quelques minutes. bàyyi ko ak moom. wala quelque heure bàyyi ko muy muy dund dundam. muy dund dundam ba ci foofu. ñu ñu ko ak yaram bi. Hmm. pour mën a def ci yaram bi liñ soxla. bu ko defee nag ñu opéré tànk bi wala loxo bi wala bët bi wala nopp bi wala kaang mi luñ soxla rek gaawantu nag. balaa xol bi di fudduwaat. Hmm. parce que bu fudduwaatee day yàq li ñu bu fudduwaatee te ñëwut. day dee. day li defoon yëpp day yàq. Hmm. ndax deret ji ñi muy ñi muy joxe. du ko attan. moo tax dañuy gaawante boo gisee foofu sax toujours deret ji daf fay bari parce que dañuy arrêté circulation sanguine bi gis nga muy daw ci ay tuyau waaw mu ngi daw de circulation sanguine baa ngi daw mais ci ay tuyau lañ koy def xol bi di koy delloo di indi moo tax nag ñuy gaawal ñoom seen opération macha allah kii indi ciseau kële indi lale boo gisee du doon benn nit de ki sëgg sëgg rek kii ñaw ñaw kii xotti xotti loolu yëpp waaw nangul nga ko tubaab bi bañal ko yàlla nga nga mën a bañ nag ne nitu yàlla bi mën naa isoler rooxu jàmbur def li mu bëgg nitu yàlla mën na isoler sa roox fale def ci yow li mu bëgg moo tax nag li nga laaj am solo hmm. gis nga roox hmm. xol xel xel ak ban ak bakkan ak bakkan inna nafsa la amaaratun bi suu illa ma rahima rabbi nga dem yàlla wax ne xajuma fen ci asamaan yi juróom-ñaar ci xadisul qudsi xajuma ci asamaan yi juróom xajuma ci suuf yi juróom-ñaar xaj naa ci xolub jaam bu ma gëm te xoolal ne tuuti yàlla ne xajuma ci asamaan yi juróom-ñaar xajuma ci suuf yi juróom-ñaar xajuma arash xajuma kursi yu te summa stawaa alal arshi noo koy firee mu ne xajuma fa waaye xaj naa fi xalbin muumin ci xolub jaam bu ma gëm ñaar mhm. ba mu ñëwee ci bakkan mu ne inna nafsa la amaratun bi suu bakkan moom du la digal mukk moom la imaam Moussa wax léegi ci émission bakkan moom du la digal mukk lu musiba bari na ko naan seytaane dañ koy tooñ rek seytaane li muy def bariwul bakkan moo ëpp lu muy def bari lu muy joué la preuve li imaam Moussa Gueye wax léegi bu weeru koor desee fukki fan Mm-hmm. yàlla day annoncé seytaane ko dañ se bés bi ñu lay yeew leen mu jot bu ko defee moom day woote congrès moom iblis doomam yu góor yi yu jigéen yi mm-hmm. yi ma yónni ci marché yi yi ma yónni ci diggante yi woo leen congrès ñoom namima waaw namima ak ñoom ñëpp siniira ñoom namima ne leen nag dañ ñuy tënk <laughs> ci pot lañ ñuy dugal ñun ñëpp waaye balaa ñoo dugal ci pot ëf leen bakkan yi kii xiirtal leen ko ci jigéen nay njaaloo ci weeru koor bi gaaw leen walla dara di am <laughs> xiirtal leen ko ci sàcc bu demee ca jàkka jàkka ji sax na sàcc dàll ya fa nekk <laughs> kii xiirtal leen ko ci mer ba rey nit fukki dërëm rek nga ci nit wala cent franc wala téeméeri dërëm kii jëw ñii nañu kii moom fexeel ba deram bi làmmiñam bi bu mu teggeeku ci der yi joxe joxe consigne yi muy jox yépp ne aca tas leen nag ñoom it ñoom ñuy tas di def mission moo tax yonent bi ne képp ku def njuumte ci weeru koor bul tuumaal seytaane ah, tuumaalal sa bakkan sa bakkan moo la ko sant moo tax yàlla ne inna ca dëgg-dëgg inna li wérte wóor mooy mm. inna lii mbirteer mbiir mooy mm. a nafsa naka bakkan mm. la am maaratun géñ naa ne lamba mu xasam la la am maaratun géñ naa ne aji digal la mm-hmm. bi suu i ci ñaawteef allahu akbar day digle ñaawteef de illaa lu dul maa ka nga xam ne nag raxima yëree yëremeef na ko mhm. rabbi sama borom yal nañ ca bokk amiin waaye bu dul loolu mhm. bakkan moo yées seytaane lii xew ci réew mi yëpp bakkan na ko waral bakkan la di yoonu seytaane nekku ci seytaane nga taxaw fale naan ay waaye bu leen ma tooñ waaye <laughs> waaye leen ma bu leen ma tooñ seen bakkan yee leen tooñ rawati nag ci weeru koor bi ñu nekk bu kenn tuumal seytaane bakkan rek a fi ne moo tax hmm. xol bakkan roox hmm. yaram bi mooy matière bi. yii yëpp nag buñ mënee nekk ci yaram ne pat yaroo tax. moo tax nit war a am yar am teggi ndax bu ci nekk xajut ci yaram. xol kese xajut ci yaram xolal fu yàlla di fanaan ne xaj naa xolu jaam bu ma gëm pour fanaan fa fu yàlla di fanaan xam nga bu yarawutoon du fa toog du fa toog foofu bu yarawutoon du fa toog kon nag ni xol yaroo benn pat di dóor rek di def liggéeyam. di rek tëf tëf di baatal rek tëf tëf tëf tëf tëf ay seconde te buy taxaw rek borom dee. wala ñu réanimé ko léegi léegi ne cardiaque la. mu faf fa jaaree maara deytaale yaroo tax mu toog fa. tey def liggéey boo xam ne maara deytaale xoolal li muy pompe di ko génnee ci deret te bëtul sa yaram bi. mooy alimenté. Hmm? mooy alimenté lépp. di centraliser yëpp. di filtre di jox rein yi. ku ci nekk ku ci nekk. moom ngay jaar usine la nit usine la. usine bële ñu monté muy defar cuuj yi. waaw sédiment. sédiment. waaw na muy rëy rëy. wala usine bële di defar saabu ya wala dàll ya la muy rëy rëy. Hmm. bu nit ko nit tout court moo ko hmm. ndax loolu yëpp ñu ngi ko fabriqué xool ko ci nit. Hmm, moo tax yàlla ne wala xadd karam naa bani aadama. leneen lu ngeen fii tiitaroo yéen a ko ëpp moo tax nee na ñu ma yéen ñi may def nawle ah bind weñ sax mu leen koo bind weñ jeex na <laughs> bind la ma gis kon hmm. roox moom waxe noppi ah. roox moom dooleem dafa ëpp ah, quli ruuxu min amri rabbi hmm. yasaluunaka ani ruuxi quli ruuxi min amri rabbi wa maa utiitum min al ilmi illa qalilan abdullah ibnu abbas yëkkati loxoom ne ana minhum yonent bi ne ko saddaqta <laughs> allahu akbar macha allah yàlla dafa ni roox kenn xamut fu mu nekk ci nit lu dul ñu néew ci mbindeef yi ñoo ko xam. parce que Ablaye ibn Abbas yëkkati loxoom ne man xam naa fu mu nekk ci nit yonent bi ne ko saddaxta wax nga dëgg. est que moom roox. moom roox. kon Ablaye kenn moom moom Ablaye ibn Abbas kenn moom. léeg-léeg rek gaa yi raam ne ko fan la nekk mu ne leen kon ma war yàlla. yàlla bi ma koy xamal xamaluma ko woon pour ma xam ne ko. la ilaha te bi ma ko yonent bi di seedeel yéen a ngi toog te kenn yëkkatiwul loxo. kon man mi yàlla déey ba seedeel ma fu rox nekk du ma sennal ndéy li ñoo ñoo mën a garder secret macha allah ñoo xam lépp ah, kañ Seydina Ali li muy baax baax raam na ci ñëw ne ko fu rox raam na ñëw ci moom ne ko fu rox nekk mu ne ko laaj ko suñu borom xëy na mu baaxee la ko que xam ah, na am na am na maqaama roox mm-hmm. ma ma tëj ko nag waaw roox mm-hmm. mooy leader bi mooy leader bi leadership mooy leadership mm-hmm. moo jiitu est que est que bu doon président buy génn da nga naan mooy flèche bi mooy ñi a génn pour annoncer ne président ngi waaj a ñëw. parce que. moo tax roox am doole fu ko neex dem. moo war a xanaa bu génnee ci ne dañu diw génn na àddina. waaw kañ génn na buy génn rek ñu ne diw génn na àddina moo tax it ngay tëdd di nelaw mu rocceeku ci yow. xam nga yàlla na ko ci alxuraan. waaw ñu booy nelaw damay débrancher wax gi rek. bu ma lay ree nag dama koy rocc. c'est loolu bu léegi nag débranché boobu mu koy débranché dafay isolé yaram bi ak roox bi foofu nag roox bi day dem di boo dee jaamukatu yàlla roox bi day dem di defi ay mission hmm. moo tax ngay gënt gënt naa sëñ Fallou Mbacké gënt naa sëñ Babacar Sy gënt naa yonent bi bii gënt naa nekk ci place boo xam ne xaw ma nu mu ne demoo fa roox moo dem indil la dafa dem filmeel la hmm. indil yónnee la ko indil la ko fi nga tëdd ci sa moom mu ngay dem di filmer nii Abdou Aziz di filmer di ñu balancer. ñun ñuy wax muy delluwaat di tas ci àddina bi noonu la roox di wëree ci benn seconde lu ko raw. parce que macha allah barakallah. dégg nga te yàqalul nit ki dara. te nit kaa ngi tëdd. nit kaa ngi tëdd di nelaw. Hmm. yow nga tëdd fii di nelaw kii tëdd fii di nelaw te bu ngeen bokk leen lu ngeen di gënt. boo ko sa soxna benn néeg moo tax Serigne Cheikh Tidiane si mu génn ngay génn feeg yeggoo ci mën a teg fële sa roox di waxtaan ak moom mu ne sa yegg ci yàlla des na mu ne foog nga teg fële sa roox di waxtaan ak moom <laughs> kooku beneen affaire la beneen affaire la te loolu niveau la bu ñuy yegg moo tax ma ne la roox mooy leader mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. xel moo ci topp moo ci tax yàlla wax ci alxuraan ne wa maa yazakkaru illa ulul albaab yi waaw boo demee ci alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alxayyul qayyum nazala alayka alkitaba bilxaq musaddiqan lima bayna yadayhi boo demee ba ci biir lu mu wax wa maa ya'lamu ta'wilahu illa allah waaye wa raasixuuna fi lilmi yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina wa maa yazakkaru illa ulul albaab <laughs> xelal ñëw foofu xel la yàlla wax ulul albaab xel dugg na xel dugg na mooy xel ulil albaab mooy xel xel moom mooy piloté yooyu xel mooy piloté nag mooy piloté ñooñu xel bu roox indee mooy piloté segg segg lii war nga ko def waroo koo def boo ko defee yaraange dina ci am ku la ci fekk du la naw mooy tëndikul baaxut yooyu dalay yedd de mm-hmm. yaa du digg nag koo gis mu rey nit xelam yedd na ko bu ko def moo nanguwul seytaan yi ñëw ne taxaw defal gënu la rey ko boo koy rey rek mu ne inni bariun minka rek mu daw taxaw fa le ne la ah yaa ko rey man ragal naa yàlla de man mi la ko digal moo tax ku rey nit rek daw nga daw ak loo bari doole ak loo bari bari fit booy rey nit rek daw ngay njëkk a def parce que ki nga rey daf la ëpp mm-hmm. daf la ëpp mm-hmm. macha allah dégg nga. léegi nag xel mooy centralisé. Hmm. xel mooy centralisé. xalaat nag te tafakkar. Hmm. alxuraan ko tuddaat. Hmm. alladina yazkuruna allaha léegi la jàll. waaw qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batilan subhanaka fa xinna adaba naar waaw xel mooy xalaat nag xalaat dama bëgg a jënd dama bëgg a jënd waxtu bi ndax dama xaw ma Abdou Aziz fan la fa temps bi nekk waaw mais léegi da nga maa giliseel ci roox ñëwal ma ci xol Eh, ñor ma ci bakkan ku ci tënkal nga nga ma wax ma dem léegi ne kon yar rek a tax nag ñu ne pat waaw parce que parce que xel mi nga wax dëxee ñu ci biir ah. jëmm joo xam ne warul leen woon a mën a tënk bu dul kattanu yar yar waaye yar yar mooy transformateur bi mooy mooy seddal gi bi maanaam bu courant ba ah, bëggee lakk ci bi transformateur bi boobu bu xel bëggee jóg roox ne ko attention maa la jiitu woon de balaa ngay am man la defal ndànk li xalaat xam ko hmm. xol nag mooy dékku moo tax sabru moom la ko yàlla jox xol mooy dékku nag xol waaw xol moom moo tax nag moo yor bagage yooyu moo yor bagage yëpp bu xel xalaatee roox dem jëli indi yiw pikiir indi def yëpp xol a koy centralise nag mooy magasin bi koy denc nga xam ne du nëb du forox du yàqu moo tax yàlla ba muy wax ne wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa samaraati wa bashiri saabirina alladina hum isa alladina isa isa asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun sadaqallaahu al-aziim yaa ayyuha allaziina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaah laallakum tuflixuun bi gën a garaaw nag hmm. Hmm? Hmm. istainu bi sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin boo demee ba ca biir wallahu maa saabirina yàlla ne ñii muñ lay àndal moo tax ba mu la ni li ma leen nattu yi ci alal ci rey doom rey ndey rey baay wàññi alal yooyu yëpp mu ne bu mu laal sa xol nag hmm. kon kon kon dëgg xel xel xel moom hmm. yar a koy dimbali yar moo koy dimbali ci ci responsabilité bi mu am ci diggante xol ak bakkan ak ruux hmm, ak la ci mën a ànd ko fa mën a dimbali mais am na ko am na koo tuddul ci ci ci juróom yooyu waaw muy matière matière nga xam moom mooy mooy yaram wi gis nga ñi nga xam ne dañu sonn lool Mhm. ci ci defar matière bi rek defar matière mhm. mel na lu xaw gën a ruux. waaw moo tax pëpp la ñuy doon ñoom xam nga pëpp. xam naa pëpp waaw kay <laughs> ñoom la yàlla da tudd ci alxuraan ne ulaay kaannahum xusubun musannada. allahu akbar <laughs> ci alxuraan laa la ba bari na waaw kay yàlla ne ulaay ñi nga xam ne. ñoom diw yaram wi rek toppatoo ko. na na si e, yàlla ne ñooñu ulaay ko e, xosubun xosubun mu sannada nee na ñooy giñol yi hmm. boo koy firi ñooy giñol yi xosubun mu sannada mooy giñol kon day gis ku sol lu waaw kañ eh, leer nañ kañ eh? fekk du dara yettu oo ba mu jekk ba mu jekk da xaw di melestiku rek fekk <laughs> fekk yàlla jotee wuñ dara <laughs> imaam Moussa Gueye bii fi jógee xam naa mu ngi may déglu ak Adja na Kumba Thiam bi ñuy dëkk pikin fii may defee gàmm gi ma doon defal waa Touba axayaay ki sëñ Babacar si bu yàggul nii. boobu Imam saa ngi dëkk foofu ci étage bi. mu ne am koo xam ne dafa ñëw mu ngi sol yére yu weex tàll mbase yu rafet ñëw nuyu leen ne muqaddamu sëñ Babacar la waxtaan ak ñoom. ndekete boobu sàcc bu doon sàcc si la te ba jékku leen rek ba mu xamee ne yëf yi doxul muy wàccee ci suuf gis bunt bu tëjuwul mu dugg fa di sàcc gars yi jàpp ko imaam ne tamit dañoo jékki-jékki rek dégg dóor yi teel ñu génn muy ñu mu génn di xool muy seen muxaddam bi xam nga kooku yére yaa rafet. waaye fekk zéro. voilà sëñ Ba daanaka wax. Ah, bari na koo xam ne solo mel na supp. jeex na fekk golo ko ëpp cër ci yàlla fekk golo ko ëpp cër ci yàlla. ka annahum xusubun musannada <laughs> dëgg la loolu la yàlla wax yàlla ne ka annahum naka ñooñu nga xam ne yaram rek la ñuy toppatoo. Hmm. ka annahum mu ngi mel nii ka ñoom xusubun hmm. ay guignol musannada yu ñuy sàtt rek teg leen <laughs> amuñ benn njëriñ. moo tax defar yaram. Hmm. donte nag. farata la ngay defal sa yaram. di ko toppatoo. di ko toppatoo ndax yonent bi moo ko wax. mais hmm. soo ko toppatoo ba noppi nag. Hmm. gannaaw moom matière la buy dem ci suuf. yem ci. yem ci rek ndax min. wala boog ni nga koy toppatoo yi. toppatoo ko roox bi. ba jox ko wàllam ci jaamu yàlla. toppatoo ko xel bi. di xalaat lu baax. te di ko def. toppatoo ko xol bi. ba boo iñaanee kenn dara bul soxoree kenn dara nga yegg fa yonent bi waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam ne al eh, eh, laa yuminu ahadukum xatta yuhibba kenn ci yéen mat feek feek du lim bëggal mm-hmm. moromi jaamam yi la bëggal boppam beneen bi ma koy jeexalee mooy yonent bi xëy na ne eh, benn saaba demal ci gàtt ba la nga indil ma la ca gën a baax mm-hmm. mu dem indi xol bi mm-hmm. ca ëllëg sa mu ne ko demaltal ci gàtt bi nga indil ma la fa gën a baax mu indi xol bi mu ne ko lu tax mu ne ko bu bu lii baaxee la baax bu bonee bu bon ci la yonent bi waxoon ne wa inna minal jasadi mm. ñu bari dañ koy jiiñ nag ay nitu yàlla ci nitu yàlla yi suñu réew mi lu yónnante bi moom nañ ko ko jox lu suñ nitu yàlla yi moom nañ leen ko jox nit ñi dofuñu loo fiy wax te bi moom ko xam nañ ko donte moom moom lépp yónnante bi nag ca la waxee xadiis bii may wax ne wa inna min al jasadi la mu doxatu mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. isa salahat salaha al jasadu kullu wa isa fasada fasada al jasadu ala wa hiya al qalb man boo gisee du may bëgg di tudd xadis xadis boo wax bu neexee gars yi ñu ne daif moo tax man ma fiy teg xadis yi sax wax alxuraan bu dee ku wax nga ñu ne ah, boo wax ñu ne daif dootoo wax si parce que li fi nekk yëpp ah, yonent bi salaay sallam ne yonent bi salaay sallam ne jëmm ngi nii mm-hmm. am na luxu tuuti wu fa nekk wuyu lux luxi mm-hmm. mm-hmm. mu doxa mooy lux suux lumb suux mm-hmm. suuxul bu fa nekk boo xam ne mm-hmm. mu ngay lux luxi mm-hmm. su baaxee jëmma ja yëpp baax waaye su bonee jëmma ja yëpp bon ñu ne ko loolu mooy lan yow ki yàlla yónni mu ne alaa dama ne hiya loola mm. bu mooy xol est-ce que est-ce que est kon kon ñu daan defar xolam ba yit tax nit ñi di xëccoo ko reyante yëpp dootu la dérange day mel ni léeb ak luppeen ci yow feek nit ci yeggul foofu nag luñ ko jiiñ ci yàlla du dëgg man maay wax ak yow tey pour nit ñi xam ne yàlla fowut foluwut te kenn mënut a tricher ne la nga dañu bu jamono xaw ñu yi nañu wax fekk yow kilifa sax lijjanti wuñ la ñu ngi ci yeneen ñu ngi ci dama dégg ku ci wax fan yi wax bu am solo xamatuma kan la ci ñiy waaraate sëñ Adi Niass Adi Niass yal na yàlla dolli wér bari xam-xam Niass ouverture démbam bi waaw ndeysaan mu ne ñu na ngi naan kilifa yi buñ wax ndax laaj nañ leen bañ waxee ndax dégg nañ leen xam nga nit ñi fii kilifa diine ji ñuy yedd kilifa yi defuñ dara nit ñi ñoo def ñoo ne ci que nit ñi li leen ñor lañ bëgg ku leen ko wax waaye li yàlla wax boo leen ko waxee ñu foñ la foñ mooy ñu bañ la man baati wolof lay wax dëgg la dëgg la boo fi taxawoon tey yow mii oustaz Alioune yow mii waaraate ca Sud FM. waaw ak waaraate yi ñuy def nii. vie yi. Mm-hmm. ku taxaw fa fële di saaga moo ñuy ëpp vie. laa ilaaha illallaah waaw ndax sëriñ si dañoo santaane saaga. déedéet luñ santaane. waaraate wax lu baax maag yow ñu ngi koy def ñoo gën a néewi vie. maa ki taxaw fa fële di saaga benn nit. dana am un million de vie. loolu passé na jeex na ma wax la. film yii am na ci film boo xam ne duma ko tudd waaw dëgg la ah, mu ngi bu nee bërër rek dem na un million de vues am naa chaine moom ubbi tudd ko sopp na bi waaw def mirage waaw xam nga li ko ubbi hmm. mille vingt et un waaw xam nga lan laa ma cent personnes yaax na yaa ko wax deux <laughs> mille deux mille vingt buy wax ci mirage amagoo lu dul trois cent abone te deux mille vingt et un nga ko ubbi woon ba tey ah. film bi may wax damay bañ a tudd turu film bi waaye yéen ñi may seetaan yéen waa Sénégal Sénégal la mm-hmm. laaj daan wax di ko arabal mm-hmm. yéen waa Sénégal yéen waa Sénégal yéen ñi may déglu avec haute voix laa koy waxee mm-hmm. ak ñi ci diaspora bi di ma déglu yépp am na film buy daw fii bu ñuy def langement bi rek te film bi dawagu dina am un million de vues rek te bi dawagu aimer abonner loolu yëpp la ñuy def sëriñ bu fi gën a baax tey bu waxoon du am un million de vie billahi lazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum un million fan waaw magum lëndëm nag ku ko daj mu daj boppam dëgg la gannaaw ormalatuñ sëriñ si mhm. respecté wuñ leen ñoom magum lëndëm lañ ku leen dajut daj leen seen bopp ñu dem toog noppi ah, est-ce que ñoom ñi nga xam ñooy wax ak sëriñ si nga xam te ñoom lañu bëgg ñu wax fi ñu taxaw ak fi sëriñ si taxaw ndax nekk na benn. du benn ki nga taxaw naan ko waxal yow mi dum àdduna bi la tax rees boobu la ko waxal. Ah. moom mi ngi dund ruuxam mi ngi dund loo xam ne. même sax mbirum àddina bi nga koy wax. mu wax ci. bu ci demee bay wax ci lislaam la ciy waxee. te lam cay waxee ci lislaam arrangé wu leen. la preuve rek miraas a ngi nii tey. ñu ci bari bañ ne góor ñaan jigéen benn ñu dem tribunal. bàyyi fi miraas mi dem tribunal léegi negu tribunal day yemale ñëpp kon nit ñi seen bopp lañ bëgg waaye bëgguñ sax sëriñ si ñu baal màq nag dama ñëw sama laaj bu mujj balaa balaa balaa <laughs> déet bu mu doon bu mujj acca <laughs> ah, ah, des na des na waaye dama des na ah des na ah donc kon kon sunu question mu njëkk bi ruux la woon xol la bakkan yaram xel nga indil ma ci yar mhm. doon kon def naa ko juróom benn ah. léegi nag. moo ma teje ko moo tax yonent bi ne adabani rabbi fa ahsana taadibi ki ma yar mooy sama borom. te rafetal na sama yar. yar rek. yar rek mooy lu am solo mooy ak Mbay Jaxate nee na. Mm-hmm. yaroo am solo. Mm-hmm. ku yaru. Mm-hmm. ku yaru yomb maanaam yaroo am solo. boo yaroo am nga solo boo yarul amoo solo. Mm-hmm. waaw. ok te loolu dafa am solo. Mm-hmm. yar rek. man gis naa ku ñu booleek ñu yóbbu kasu tëj. waaw ah, waaw. gis naa ku ñu booleeg pouvoir am yóbbu tëj. waaw ah, waaw waaye gisagum ku ñu booleeg yaram. mukk di ko toroxal du am mukk. nit ñëpp ñëw nga yàgg toog ci biir suuf. ku ñëw nga jox ko cër. gis ma ku lay toroxal. amul fenn kon nag. loolu dafa mooy mooy régulariser social yaa nga xam ne mooy kenn ku ne kon bu doon jël di tiir ci leçon bi mm-hmm. dañuy wax ne kon il faut que ñu jéem xool naka la ñuy def mm-hmm. ba ndaw ñi mm-hmm. wala bi ah. ñu mën a leen yaru diine nag moo ci rek kañ parce que yar nit ak yar yar nit ak wañañ ko taxul nit ki ko ñëw noyyi léegi nag gis nga li ma jëng lépp mhm. dama lay laaj day yan relation la ñu mën a am ba mën a yéwénal suñu dund relation ci suñu diggante wala ak suñu borom ba mën a relation bi njëkk bi ñu war a am ba ba suñu diggante donc mooy mën a fonkante léeg-léeg nga dégg ku ne nawloo wante sax mais mm-hmm. nawloo beneen degré la mm-hmm. fonkante fonkante mooy duggaat ci li ma la waxoon wala xadd karam naa bani aadama parce parce que ka ngay fonk mm-hmm. doo yëg ndax jullit la d'abord doo xam ndax chrétien la doo xam ndax animiste la doo xam ndax góor jigéen la doo xam ndax lesbienne la doo xam lan la da koy fonk rek d'abord ndax yàllaa ko bind mm-hmm. mooy wala xadd karam naa bani aadama foofu la ñu tubaab yi rawee ci àddina mm-hmm. être humain mm-hmm. être humain être humain lañ fonk nit ki la yàlla njëkk a waxal tout court sëñ Abdoulahan mu Mbàkke mu baax mi ba ma ko seeti jee eh, Touba Belel loolu la ma mu ne ma ay dara xam nga loolu mooy wala xad karam naa bani aadama ma ne ko déedéet mu ne ma mooy ku bopp bi féetee kaw rek tànk yi féetee suuf kooku la yàlla xam ne amal ci moom orma. <laughs> amal ci moom orma. gisagoo contraire bi. déedéet ah, moo tax mag ñi dañuy jël benn baat bu gàtt rek wax la mm-hmm, mm-hmm. abord li war a jiitu ci suñuy diggante pour ñu mën a dund dund gu neex bu sell. Mm-hmm. mooy ñu ormalante. ormalante kenn bañ a dépassé moromam. ormalante kon ñun bu ma déggee ormalante dëgg-dëgg su fekkoon ne dund nañ ko dëgg-dëgg ah. kon sax xëccoo yi am ci pays dara du ci am bu dee bu dee benn la mën na sërif jëlal jëlal nga ne ma jëlal ah. bu yàggee dootuñu xëccoo moom la wolof di wax ne ni xëj xëccoo hmm. bu puusante ndabu teraanga ba mu toj moo gën di ko xëcc ko ba mu toj waaw mu xar waaw ah. xëccoo ba mu xar xëccoo ba mu xar puusante ko ba mu xar moo ko gën hmm. ndax ku ne da koy yéene moromam liñ war a njëkk a njëkk a njëkk def mooy ormalante <laughs> moom la Alaaji Abdou Aziz daan wax ne bu fekkee balaa ngay ormal nit xam mooy kan mu ne matatu ko parce que Allahu waaw Alaaji Abdou moo ko daan wax radiyallahu yokk jeex na mu ne bu dee balaa ngay ormal nit xam mooy kan mu ne matatu ko mu ne na nga def koo gis nga ormal ko te xam ne mbindeefum yàlla la bindoo ko mu ne bu mbokk feeñee nga siggi ba faw mu ne waaye boo ko ormaalut bu mbokk ko feeñee nga ruus ba faw kon nag koo gis rek ormaal ko orma boobu nag mooy li premier étape mm-hmm. bi ñu war a teg jéego pour suñu réew yu baax mm-hmm. Mm-hmm. gis nga réew yi développé yëpp ci foofu lañ jaar ñoom est demal Chine balaa may day ñu ne dañoo bari ñoo fi gën a bari gannaaw Inde léegi Inde jiitu na leen. waaw Inde jiitu gën a bari Chine ci topp. Hmm. Nigéria bii li ñuy wax yëpp cent vingt et quelques millions personnes lañ ñële un milliard trois cent et quelques millions. te boo demoon Chine tey. Hmm? boo demoon Chine. Hmm. jënd sa bagage teg ko ci bunti magasin bi. ba ëllëg ci waxtu woowu boo ñëwee fekk ko. moo xam magasin bi tëj na moo xam tëjut moo xam taw na moo xam naaj na boo ko fa tegoon tey. 17 heures moyen le quart 17 heures moins le quart. ba ëllëg ki 17 heures moins le boo ñëwaatee fekk ko fa kenn du ko la Chine bii te doxaluñ charia. Euh, Chine bii laa wax de Chine bi seen genn maa maa xam Chine. mais ah, sëñ man sëñ sama daal yi ñu sàcc suñu dama jóge ma jógee Medina màkk laa jógee daal yu rafet. waaw ah. ñëw de bu dugg ci taxaw jàkk jàkk ji. Ah. dugg génn fekk ñu ko doon ñett. te ñooñu charia la ñuy doxal. <laughs> fañ sàccee sa dàll yi charia la ñuy doxal. mooy Madinatul Munawwara fa lañ sàccee sa dàll. demal Chine bi ma la wax ñiy jënd marchandise te di ma déglu yëpp Sénégal. Sénégal gi Medina laa ko jëndee. Medina nga ko jëndee waaw ñu jeex ko sol ba yegg Sénégal. waaw ñu noo jàkk mais mais dañ fay sàcc. bu sa kamara yi ñuy takk nii di wër. lu tax nga koy takk ci seen digg. bu ci bu ci rot du feeñ. <laughs> bu ci wadd du feeñ lu tax ñu ne la takk ko ci seen digg ba mu dëgër te da koy takk sax ñu lañ set ko waaw loolu ci biir tawaaf bi lañ koy lañ setee dëgg la li may wax ñii dem màkk yëpp xam ah, ah, ah, am nañu ah am nañu moo tax léegi nii lañ koy def bokk ko ci wetu xol bi xanaa xol bi di dóoraale mu di ko yëg bokk ñëpp fii nga gis ñi koy bokk xam na mooy xol bi dimbali ma ci dëkk deel dóor ma di ko yëg balañ ko sàcc <laughs> waaw fa sharia fekk baax ñu samp fa sharia yonent bi tëdd fa yàlla di wax ak nit ñi ca Kaaba ga hmm. ñu di la fa sàcc euh. nga dem Chine ñuy romb sa bagage kenn du ko sàcc kon jikko la jikko la allahu akbar jikko la jikko la du diine bu doon diine diine santaanewul sàcc kon nag fokk ñu yar nit ñi mooy day day day def ci li nga doon wax ni bu xol bonee xol yàqu xol yàqu mooy loolu xol yaa démb rek maa ngi dégg oustaz Assane Diouf maa ngi koy nuyu au passage. ndeysaan ndeysaan. wal fajiri ci seen. keppaar yi ñu doon def mook Moustapha Diop ak Georges Nastaye ak ñooñu le. ndeysaan ak Pape Pape kii Diallo. waaw maa ngi koy dégg muy wax oustaz Assane. Hmm. mu ne am na dëkk boo xam ne. tuddul tur bi nag boo fa demee di jënd carburant da ngay sol sa oto ba mu fees bëgg a fay ñu ne la salli ala muhammad wa sallam nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ne la demal parce que même màkk nga gis ni doo fay yow xam carburant doo fay dañ la naan salli ala muhammad surtout bu dee ramadan julli ci yonent bi nga julli dem sa yoon te def nga sa plein wala yaa xam loo duy mu ne am na fa restaurant yoo xam ne dañ ko fa def pour néew ji doole yi ku néew doole da ngay ñëw toog lekk jóg dem sa yoon doo fay dara boo duggee ci oto amoo paas bu bu ñuy ñëw di contrôler di laaj paas danga nga naan salaam moom moo ne nii ne salaam mooy amoo paas ñu bàyyi la mu ne tey ku ko defoon Sénégal ñi am alal ñoo dut fay da ngay dëggal restaurant booba ñu ñu yar nit ñi ba ñi nga xam ne amuñ dara ñoo fay lekk tey buñ ko defoon Sénégal patron yaa fay lekk ah. wala danañ ko xëccoo xëccoo ba gendarmerie ñëw tëj ko ah parce que yaruñ suñu jikko. Ah, xéewal yi màgg daan indi fii. mooy karkaasu xar yi eh, ñu ko ñu koy séddoo. voilà kon oustaz. Hmm. Euh, premier étape mooy yëgante. mooy yëgante. pour ñu am jàmm. suñu relation mën a dox. suñu relation mën a dox yëgante bi rek mooy base fondamentale bi. dafa mel ne mag ñi am na ci jéego de. mag ñi rek a ko amoon na waaw ci jéego rëy rëy. ñun amuñ ci dara na ma yàlla baal ñun ndaw yi amuñ ci dara ndax koo ci yëg li ci ëpp. sa intérêt personnel ngay jiital ci yëg gi ker bu sa intérêt fajoo pare nga ci moom. dama gis Baye Ablaye Thiaw. Ah. Baye Ablaye Thiaw meen. laay benn maa ko xam bu baax yàlla mhm. dama gis njabootam yu ci ëpp. sëñ Babacar sëñ Mansour. Cheikh Mbacke Laay. Alhaji mhm. Ibrahima Niass. maam mhm. Diarra moom moom ci wàllu dundal mbokk. wax yàlla da cee joué rôle yu rëy rëy. te loolu tam dafay dafay dëgëral day dëgëral. ah bu bu bu sëñ Ablaye Thiaw de dañuy xalifa rek waaye man mii di wax ak yow. Mm. sama ndey sax tuddee gu ma ko doom ay ñii rek ngay tudde awliyaaw yi rek laa tudde allahu sama baay maa ngi koy tudd loolu tuddee doom tout récemment ma tagul deux deux ans yi ma tagul wala ci lay yem est-ce que est ah, yàlla yi rek laa ko tudde ah, waaw loolu projet de société yonent bi kenn laa ko ci tudde ñi ci des njabootam ak wali yi ci réew mi ba ci sëñ Touba tuddee naa ko doom macha allah si loolu Ablaye Thiaw def loolu la ñëpp war a def. loolu ñëpp war a def. boo demee maam euh, ni ñu koy waxeeti maam bu Kunta mii génn àddina. waaw caatam El Hadj Abdou la ko tuddi bu Njaasaan bi maam bu xam nga xam nga caatam El la ko tuddi taxaw diggi Njaasaan ne sëñ Abdou ñaar rek a ma tënk li may xalif général de Njaasaan. waaye su dutoon loolu sa jikko doy na ma doy joo xam ne dinaa ñaan wér di ci yow. Allah pencu Njaasaan ñëpp a ngi toog. a ngi toog Allahu akbar doomam juddu di caatam mu tuddee ko Alaaji Abdu. firndee ko li mu wax mu wax nga ne la Njaasaan di daagu Abdou Aziz Kunta ah. <laughs> loolu sëñ Modou Faati Xari. doomam a ngi fii mu tuddee ko Alaaji Abdou Aziz Abdou Aziz Mbàkke. est-ce que Faati Xari bi ngay dégg. premier xalifu sëñ Cheikh Massamba Mbakke doomam a ngi fii ci géejawaay fii sëriñ Abdou Aziz Mbakke mu tuddee ko alaaji Abdou Aziz sëñ Moustapha Massamba Mbakke sama xarit la naa dina daaw jéeg yal ko yàlla dolli leer amiin amiin sëñ Mbakke am na doomam bu jigéen boo xam ne alaaji Abdou Aziz la ko tuddee dafa na bu juddee góor ak jigéen yëpp sëñ Abdou laa koy tuddee mu juddu ji jigéen mu ne Azizatu Azizatu Mbakke mu ngi may dégg demoon naa ba mu bëgg ma ko may man ndax bëgg Alaaji Abdul Aziz. 92. demoon na ba bëgg ma ko may man ne ko ëpp naa def man daal. Mbàkke ñi sant Mbàkke ñi sant si ñemewu ma leen <laughs> waaw ndax seen maam yee tax. dëgg la dëgg la. kon loolu ma loolu nga wax mooy dëgg mag ñi ñu ngi ko doon doxal. ñun kañ ñoo defut dara ba pare bari wax dama yàlla baal. dëgg boo xoolee sëñ Tuubaa am na Sëñ Abdou Khadir. jeex na mu ngoog ñu euh, ànd ay wàllu yu la ñu fii ay Ibrahima. Seydi Hadji Malick njabootam. comme ni ñëpp daanaka ñëpp yonent bi ak ak saxaaba la. jeex na waaw ah, lii mooy dëgg loolu mooy dëgg mooy borom xol yi yàqoogu. moo tax daal hmm. première étape. yëgante. yëgante booboo ci ji. très important kon bu ñu doon jël bu doon jël leçon ci émission bi. waaw ah. dañuy wax ni kon à part de tey genn ku ci na nga jël ci leçon bi na nga yëg sa morom. waaw ah, kañ deuxième bi nag. Hmm. boobu nag moo ba gannaaw yéeg bi boobu mooy deuxième mooy troisième mooy quatrième mooy hmm. cinquième mooy mille. lépp ba millième. ba mille ba cent mille ba milliard <laughs> te yàlla daf ko junj ci alxuraan xam nga mooy lépp mooy lépp boo mën a indati rek boobu lay dimbale. taawanu alal birri wa wala taawanu alal ismi wal udwan jàll na léegi gis nga générique bi li tax ma di ko teg waaw bu nit ñi xamoon li aaya bi di wax bëggoon naa ko laaj te commencement ba mais dafa bëri dafa bëri bagage dafa bëri bagage yu ci dafa bëri bagage côté bu laal na côté bu ne ci social ak lépp générique bi laal na ko mais ndekete kon yow ah, nga wax ci wàllu dimbalante ci lu baax xam nga jamono toll nañu fa ah. léegi koo laal mun la porte plainte waaw wala taawunu alal ismi wal udwan waaye muñal ko ak baal ko moom déggatuma ko déedéet amatul fet tey ko boobu rek moo ci topp te moo mujj yàlla ne taawanu waay waay da leen dimbalante mhm. taawanu da mhm. leen jàppalante mhm, alal birri ci def lu baax ak njëkk te di ko wax te di ko def wa taqwa ak ragal yàlla ak luy junju ragal yàlla dee leen ko def waaye waay wala taawanu déet ngeen di dimbalante alal ismi hmm. ci defu bàkkaar waan yi ak noonoo noonoo wallaay wallaay wallaay li ma lay wax kon centralisé na yëpp tubaab yi luñ ñu rawee social social donc luñ ñu rawee social kese lañ ñu rawee ah mais yow koo xamante ne dafa dem ba ab xaj sax ñi moo ko faa dóor jeex na am muus ñi moo ko sànni ci mbedd mi boo reppee ba dóor fa xaj walla mala rek xaj jigéen wala nga dëgg gone wala bant kenn du ko laal dafa am e, Paris sama kër. waaw branche bu xam nga man dama bay bëgg jekkal la ka jekkalaat ak lu nekk branche bu ñëwoon ci ci. ci biir kër kii bi. véranda bi véranda bi noonu. Hmm. ma bëgg koo dagg soxna si ne ma bii day boo ko daggee bu la fi amande fekkee. di nga rëccu loo ko doon daggee. ma toog une semaine lañ ci teg mu mel ni dañ ko dégg. ñëw def tuur kër yëpp branche yi dugg ci kër yi ñoo koy daggal seen bopp dañ koy limité taayal ko seen bopp buub ko yóbbu waaye amoo dem ni gor boo koy gor ñu amande la doonte sa biir kër la nekk ñoom am na euh, quartier bu ne am na heure bu ñuy ñëw ak weer wu ñuy ñëw pour taaye garab yi fleur yi la même chose doo taaye benn fleur ñoom ñoo koy taaye mairie bi moo koy def liggéeyu mairie bi la am na heure am na période boo xam ne jardin yépp la ñuy wër yu kër yi ak yu mbedd yi taayee ko hmm. sa yoon nekk ci dangay xëy rek ñu taayee ko bu yóbbu. waaw ministre de l'environnement de foofu amoon. léegi nag loolu mooy taawun wala mbir yoo tax waaw mooy kon looy wax ñi xam ne dañuy dëgg bant dëggati bant yi di bi wax ko ci xadis. ni ar bi bil xayawaan. ar-rifqu bil xayawaan ar-rifqu bil xayawaan yërmande ci jur gi ne maa ngi leen di ñaan na ngeen am yërmande ci jur gi na ngeen am yërmande ci jur gi na ngeen am yërmande ci jur gi oh. waaye fii da ngay xool suñu fas yi dañ leen di yenn loo xam ne da ngay gis fas yi ne bépp ci diggi mbedd mi ñëpp di la romb ñëpp di la romb nga gis fas woo xam ne lañ ko yenn mu ngay xaxat dënn baa ngay riir mu fakkastalu ci kaw tali bi. ñu ñu di fakkastalu ci kaw tali bi ci goudron nga toog ci kaw yor karawaas. nga toog ca kaw yor karawaas di ko ko bàcc. ca awra yi. te yonent bi ne la rifqu bil xayawaat dem ba la ne xar mi boo koy rendi sax nëbb ko paaka bi. salaay sallam nee na xar mi sax boo koy rendi na ko nëbb paaka bi bu amee moromi xaram yu fa nekk na leen rawale. ba buñ ko gis. mais xoolal boobu yërmande ñun léegi. maara deytaali booyal suñ bakkan yi lu ñu yeex def ba pare tuddee ko diine na moo tax it maal asaf maal asaf wallaay wallaay wax nga ñaar yi rek moom lañ mën a def imam du ñett du ñeent du juróom ñaar yi kott buñ ko defoon société bi jag ba mu paase jag ñaar yi wax ni mooy lépp sax euh, imam euh, Chérif moo tax sama mutuel de santé bi ma taxawal depuis 2008 waaw albir wa taqwa laa ko tuddi mutuelle de santé albiel wa taxaw maa ngi ko jëlee ku ci bëgg di di di waaw léegi nag moom ndimbal li ma ci def sax dafa ëpp moom eh, ma bëggul ndax mu bokk ko laa ilaaha illallaah xam nga looy cotiser eh. mille francs par mois eh. mille fois mais astafurlah bopp bu ne mille francs bopp bu ne mille francs ah, adhéré hmm. ah, adhéré adhéré ñaata la kenn ku ne mille francs ngay adhéré at mi yëpp at mi yëpp hmm. trois mille francs ngay fay ah, loolu na social dëgg la loolu moom est-ce que dégg li ma wax ah, dégg naa francs ngay adhéré. Hmm. at mi yëpp mille ngay cotiser. bu sa soxna di mucc 100 pour cent lañ koy jël accouchement 100 pour cent. mën na ma ko waxee du ma bëri. ah waaw benn ah. waaw boo boo ko doon calculer ñaar dërëm par weer la. ñaar dërëm par par ñaar dërëm par jour la. xam nga léegi xoolal hmm. boo demee pharmacie. garab bu ñu la mën a bindal boo demee pharmacie cinquante pour cent ngay fay mutuel bi fay cinquante pour cent yi ci def masalan tey bu garab bi doon euh, cinq mille francs boo demee deux mille cinq cent ngay joxe ca pharmacie ba ñibbi ñu jox la sa garab bu weer bi dee pharmacie bi day indi facture bi ci mutuelle bi c'est social baa ngi fii. fan la fii ci euh, marché Maam Jaara bi ah, d'accord foyer de jeune bi. foofu la mais ku la contacter dinañ dinañ. waaw dinañ numéro yi dinañ ko dinañ ko dawal. dawaloon nañ ko fi sax. keroog yegg naa ci benn ku mënut ci sa bopp mille francs boo dee yaa xam. dëgg yàlla 3000 francs ah, jamono bi tubaab yi def social ci seen dëkk yi. Hmm. mutuelle de santé yee leen ci dimbale. Ah, dama moom dafa ni mooy léegi ma waxal la. Hmm. poste de santé. Hmm. hôpital. centre de santé. yépp dañ koy jël. te 75 pour cent lañ ko jël. il est man la état njëkk a reconnaître fii. Ah, macha allah CMA. Hmm. bu dutoon man fii ci géej hmm. du dox. CMA bii président Macky Sall taxawal laa wax de moo tax ba ma ci génnee bañ may kall kallee ma génn ci. dañ gaaw ñëw seet si waat ma ne ma yow boo génnee du baax. maa ngi koy sant nag eh, soxna Absa Fall. moo moo dirigé. Eh, mutuelle eh, kii CMI bi fii ci Géejawaay. délégation la ñëw seet si ma fii. mais sunu boor yi wala leen ko. ne fii ba dakaar am na fa am na fa. d'accord dafa dajagut Sénégal waaye fii ba Dakar fu waaye dëkk ci Dakar. mën ngaa bokk ku mel man yow mi dëkk Grand Médine. Dalifort Dalifort mën ngaa bokk. mën naa mais mën naa am foofu foo foofu am nañ fa pharmacie. am ngeen pharmacie ah, Sacré am nañ fa pharmacie. Hmm. boo booy demee di jëlee garab. Ah, agréé nañ ko foofu. wa illaa bu fekkee ne yooyu hmm. euh, amuñ fa pharmacie mën nga yónni xale. wala cag-cag ñu jox ko garab yi mu dem. léegi dara dara jafeetu. loolu am na solo léegi point bi dafa yaatu. dafa yaatu bu dama ko indi rek. waaw ci albirru wa taqwa. Mm-hmm, mm-hmm. tubaab yi liñ leen di naw naw yëpp gis nga Covid bii paase nga baal ma. Mm-hmm. ñun xam nga nuñ doon def fii Sénégal. di la jox ceeb ak diwlin lu muy jëriñ. <laughs> ceeb ak diwlin tey nga koy lekk bu jeex xam nga tubaab yi naka lañ def. seen social yëpp dañ ko dajale. dangay jékki-jékki sa téléphone sonné. ñu ne la am nga deux mille euros deux mille euros laa wax état moo la ko dimbalee ci Covid bi ki ci gën a le gën cee le mille euros lay am yow nga xëy sa compte nga gis ñuy dugalal la ci deux mille euros wala mille euros ne la état la ko dimbalee fi nga toog jógoo fa sa téléphone mooy sonné nga xool ñu ne sa compte dugalal nañ la ci deux mille euros loolu lu ko gën a yomb nga bàyyi nit ñi ñuy raj raj loolu police yi di leen dóor pour jox leen léegi di la dóor di la jox loolu mooy la c'est mal mal organisé mu del si li ci Serigne Cheikh waxoon dëgg juñ organisé wut fenn wuñ organisé ku man mu ne ndax yàlla organisation rek a ko ñor boo ëllëgee nag mu tàqale su ko defee kon ñaar yooyu daal imam mm-hmm. oustaz muqaddam <laughs> fooy waareeti imam ma jël ko oustaz ah. muqaddam <laughs> fooy waareeti jëlal ñaar yooyu yëpp yaay borom <laughs> moo responsabilité boo yenu la ah. gis nga ñaar yooyu nag buñ ko doxaloon rek mm. réew mi ne coj dëgg la mais ba ba foofu laa lay dugalaat ci beneen question waaw ah. léegi fi fi réew mi toll nga xam ne daanaka booy xool moom ñu ngi bëgg dem kaw mm-hmm. ci politique mm-hmm. te ñi ñu fa yóbbu ñëpp matuñu sax dix pour cent ci askan bi mm-hmm. seen intérêt bopp rek tax waaw léegi bu pour mën a seppi ñii lab ci ndox mi maanaam ñi lab ci ci ñi bëgg a lab sunu réew yi bëgg a lab yéen ñi xam ne yi lan ngeen xalaat ni bu ñu ko defee dañu xettali Sénégal ci lab gi mu nar la di waxante dëgg rek dëgg rek dëgg rek waxante dëgg rek gis nga loolu yàlla moo ko bëgg xam nga lu tax yàlla moo ko bëgg hmm. léeg-léeg dana am fu mu baax léeg am fu mu dut baax mooy buñ nee politiciens yi minorité bu tuuti lañ not ñu yàllaa ko bëgg wa kam min fi atin xalilatin xalabat xalabat kasiratan bi iznillah la ma waxoon ñëwut wallahu ma asaabirin que ñoom ñoo nangoo dugg ci géew bi di encaissé lu ne ñooy encaissé saaga yi ñooy encaissé coono yi xoolal ndart ndart ji ñuy daj nii. waaw damay wax ne c'est pas pour rien waaw damay wax ne. li politicien di daj pour nekk ministre wala député wala maire wala président de la république billahi ku ko daj ci yàlla nekk wali yu kaamil. na dégg. na ma. bañ a li politi tey politicien yi lii ñuy daj ñii pour xëccoo réew mi billahi ku ko ci daj ci la yàlla ren bi déwén nekk wali yu kaamil boo xam ne da ngay wax ak sa borom mu di la tontu. waaye yow joxoo ko yàlla joxoo ko àddina yàlla bàyyi la ak waa àddina. waaw ñu lay kalkale rek. boo ko joxoon yàlla nag yàlla téyeel la boppam. allahu waliyu lazina amanu. waaw yuxrijuhum mina zulumaati ila nuur. jeex na waaye joxoo ko yàlla joxoo ko àddina mu bàyyi waa àddina bi ñu di la nappaaje te doo ci mën dara parce que la nga waroon a jox yàlla joxoo ko ko di nga ko jox ku ko yées koo xam ne sa nawle la yow mu di la jaamloo di la gololoo di la pini di la dóor di la duma di la def lu ne te doo ca mën dara parce que yaa ko waroon a jox yàlla te joxoo ko. mu bàyyi la ku lay fitna. mu des fa man aarat an zikri fa inna lahu maishatan dankan wa nahshuru lahu yawma alqiyamati jeex na yaa ko wax <laughs> alquran moo fi ne gis nga yawut yi Israël tey juif yi waaw ñooy minorité ci àddina bi dëgg la te tey ñoo ndar képp àddina bi lu tax tey Amérique di leen sot leen nii lii ñuy def Palestine est-ce que jaadu na jaaduwul tey jaaduwul la dëgg du yoon américain ci boppam taxaw na métit lu ko kenn dégluwu ko mu dem ba buntu Maison Blanche taal boppam te du jullit ne lii ñuy def Palestine jaaduwul bind ci ay correspondant def ci lim ci war a def dox ci lim ci war a dox faale wuñ ko mu dem ba buntu Maison Blanche sotti boppam essence taal boppam nag lii mënu koo seetaan te du jullit injustice buñ bi ñuy teg eh, Palestine la bañ te pourtant du jullit lan moo dal jullit yi ba ñoom la leen dal mooy la yonent bi waxoon sama ginnaaw di ngeen bari lool waaye mboob ngeen di doon mboobit mooy bu bu taw bi tawee yooyu muy yóbbu jal ko fële xusubun musannada ngeen di doon ulaika xisbu cheytaan ala inna xisba cheytaan humul xaalibun humul xaasiruun hmm. kon ñàkk nawlowante bi may wax nii rek ak ñàkk yëgante bi njaxlan yow ibaado baal ma doo ibaadu waaye damay wax waxin la la yow ibaadu nga man la ki murid la kii xaadir la kii salafiste la kii chia la kii ibaadu rahman la kii wahabis la yu ñàkk fayda yooyu ñu jël jiital ko bàyyi diine te du diine ah du diine innama almuminuuna ixwatun mm-hmm. fa aslihu bayna axawaykum wa taqullaha turhamun fu ñu koy dugal fan la ko tijan bi di dugal bu bañee murid fan la ko murit bi di dugal bu bañee xaadir fan la ko xaadir bi di dugal bu bañee laayeen fañ la ko laayeen bi di dugal bu bañee ibaadu rahman fañ la fan la ko ibaadu rahman bi di dugal bu bañee falaax fan la ko falaax bi di dugal bu bañee chia ñu nekk fi di bañante ci furoo yi rek man foofu sax yaa ma dugal ci benn laaj foofu ok lii rek moo ñu sonal noo gisee noo gisee noo gisee jullit yi ci ñàkk déggoo ci weeru feeñ ok imaam Moussa wax na ko léegi hmm. loolu yëpp na ma yàlla baal suñ matadi la kenn ku ne indi dara jaay boppam la ma tax wóolonte ñàkk wóolonte bi mooy mooy ñëwaat li ma lay wax rek <laughs> yëgante wuñu ah, dafa mel dafa mel waaye suñ yëgante woon d'abord wóoluwante day am damay xam ne imaam Alioune Mbaye gënuma koo ragal yàlla dëgg yàlla bu ne weer wi feeñ na hmm. affaire am na mook boromam la hmm. waaye charte yi ñu wax ne ku ko gis hmm. annoncé ko jamaa mustafira war nañoo mën a sukkandiku ci yow imaam Alioune Mbaye ne gis na ko mm-hmm. wala ibaadu bi ne gis na ko mm-hmm. teg ko ci chart yooyu te toppuñ ko ca ña ko ca toppul danañ am daanu yàlla ak kuñ mën a doon bu wér su ko waxee nag te fekk amul mook boppam mook boromam est-ce que est-ce que ñi nga dañ ne dañ ne tam weer euh, mënees na ko gis même bu nee xuma parce que suum wala ruweet su nga gisee. woor leen waaw in xumma. waaw in fa ak bi salaasina. waaw léegi nee nañu xumma na bu xummaa xuma na ba gisuñu ko waaye ma nga fa dañ lay dëggal kon moom waaw mu nga fa parce que tam waaw moo tax kuy iddawu tey imam hmm. ci charia du weesu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wu ne ñaar fukki fan ak juróom la koy calculer huit cent vingt-huit jours waaw teg ca nag fukki fan ah parce que loolu la yonent bi wax ne weer du wees dafa ne hmm. ba mu koy wax mooy ba mu duggee ci jàkk ja ba ko soxna ya tooñee. waaw waaw. te <laughs> Sayyidatuna jiite ko. ndeysaan li ma ca complot ba. li ma tuxarrimu ah, kañ ca complot ba moom <laughs> moom yonent bi. Hmm. ah mu bàyyi leen fa dem ca jàkka ja jàpp njàmburam. Hmm. vingt neuf jours la fa def. Jibril door a ñëw. Hmm. ne ko yaa yaa yaa ayyuhan nabi qul li azwaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fa taalayna umattiukunna wa usarrixkunna saraaxan jamilan waaye wa in kuntunna hmm. turidna allaha wa rasulahu hmm. fa inna allaha aada lilmuxsinaati minkunna ajran azima yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin min annisaa in ittaqaytunna fala taxda'na bilqawli fa yatma'a alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljaahiliyati luulee wa aqimna salaata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula dem ba ca biir ne innama yuridu llahu li yuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tathiran sadaqa llahu sadaqallaahu l-aziim. waaw kay sadaqallaahu l ba mu demee nag ba def vingt neuf jours loolu firi ko du fi xaj ndax dafa gudd. waaw du fi xaj waaye ma mësal ko. parce que ah, waaw mooy. ba mu ne ba mu ne weer vingt neuf la. fa laa jëm si voilà. ba ko soxna eh, yi complot ba mu dem ca jàkka ja toog fa. Mm-hmm. vingt neuf jours la fa def. ba mu génnee moo tax. jël téere di yër rek du xam-xam. fokk nga dem ci oustaz Alioune Mbaye mu tëralal la. waaw mu jàngal xam nga lu tax. xadis mm. ah, bii may wax moo tax. ba yonent bi génnee dafa taxaw ne ashahru hakaza mm-hmm. waaw wa hakaza ne wa hakaza ne fa in ghumma fa akmilu salaasina waaw hakaza hakaza yooyu boo koy gis ci téere te xamoo lan la looy wax mooy mooy la danoon waaja doon jaay ne boroom xam-xam la ca Saalum <laughs> néew bi ñuy suur rek mun indi leen meew ñu indi meew mu sotti ci bàmmeel bi ñu laaj ko mu ne labib labib. ak la. ñu tey lu dee tey lu dee di. xalib la jaawale ngeen baal ñu yéen yéen ñiy seetaan. nga dëgg de xam nga labib mooy. waaw kii kii bi. labinaat yi sotti suuf moom mu jaawale ko xalib. ku ñuy rob la mu ne indi leen meew ñu indi butéeli meew rek mu sotti ci bàmmeel bi <laughs> xam nga ñàkk xam ne daf ko dafa jàng ci téere te kan tëralalu ko buñ la tëralalul musiba rek ngay wax musiba ngay def léegi nag boo jàngee ba yegg si ci ashahru hakaza wa hakaza wa hakaza te firi la ko doo dem doo dem moo tax yonent bi dafa ba génnee sallallahu alayhi dafa ne ashahru weer mm. hakaza nii dajale ñaari loxo mi xam nga mooy diis muy diis muy fukki baaraamam yi ne mm-hmm. wa hakaza defaat nii muy diis mm-hmm. muy vingt mm-hmm. banque benn bi tàllal ñeent yi boole ko ci nii ne waa hakaza muy vingt neuf jours dal di ne fa in xumma su fekkee dafa muurun dafa am nuage yu fi nekk ba gisu leen ko fa akmilu na ngeen mottali mottali salaasina trent jours waaye fekk feeñ na yéen ko gisul man foofu laa am problème euh, Chérif waaw euh, euh, parce que xuma jooju su fekkee leen dem ba gis leen ko hmm. mottali leen hmm. mais dafa dem ñoo ne léegi moom xuma gi nanguwuñ ko danaan ma nga fara gisuñu ko waaw loolu mooy ñàkk ñu indi ay machines yoo xam mooy ñàkk doy loo wante gi xam nga lu tax fa in xuma gi hmm. wa wa inna min annaasi man yaabudullaha ala xarfin yàlla bëggul ku koy jaamu ci sikki sàkka loolu lay firi ala xarfin boobu doo ko firee boo ko doon firee xarf wa min annaasi man yaabudullaha ala xarfin am na ñoo xam ne ci sikki sàkka lañuy jaamoo yàlla yàlla bëggul ku koy jaamu ci sikki sàkka lii la rek la bëgg ko ko ko jaamu yaqin sax dafa baax boo amee sikki sàkka yàqul waaw ayna al yaqini hmm. ilma al yaqini xaqul hmm. yaqin hmm. loolu nag bu amul da ngay da ngay dem ba ci yegg rek ci aynul yaqin <laughs> bëgg naa la laaj benn laaj parce que dama ne woon damay damay daaneel série ak Ablaye Ablaye nga may ma bii laaj ma laaj ko ko hmm. léegi nag euh, dama bëggoon ñëw ci euh, ci société bi tuuti waaw hmm. euh, ndax fii réew mi toll hmm. waxtaane diine ba jógtee tuddoo fii yi fi toll tam dana dana dana doy waar suñu réew ngi toll ci tànn tànn tànn njiit lan mooy responsabilité tànnkat bi lan moo la ci mën a fekk ëllëg sa diggante sa borom. Mm-hmm. ndax da dégg offre bi rek ak coow rek daal dem jël sa carte jox ko nit na naka la war a tànn. gis nga loolu rek mooy wax bi nag. wallahu yaxluqu wa yaxtaaru. Mm-hmm. maa kaana humul xiyar. Mm-hmm. bu yàlla waxee loolu nag. responsabilité day dugg. Mm-hmm. inna aradna al amaanata mm-hmm. ala samaawaati wal ard mm-hmm. wal jibaal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaanu innahu kaana zaluman jahulan li yucadiba allahu almunafiqina walmunafiqaati walmushrikina walmushrikaati wa yatuuba allahu ala almuminina walmuminaati wa kaana allahu gafuran rahima sadaqa allahu alazim gis nga tànn dafa sensible ganna di ba pare di responsabiliser sa diggante ak sa bor moo tax yàlla ne bàyyi leen di tànn bàyyi leen ma tànnal leen xam nga kon dangay boo ko bëggee déggee ne noonu danga nga naan kon naa croiser les baraa yàlla tànn déedéet yàlla bu lay tànnal bu ne bàyyil ma tànnal leen mm-hmm. mooy bàyyil sa xel ci ki mel nii ma bëgg man yàlla ngeen tànn kooku. fekk boobu moom moo jiitu ci tànn moo jiitu ci tànn bi li yàlla bëgg a wax foofu daal mooy ku ngeen mën a tànn man yàlla naa jiitu ci tànn gi. na ngeen ko tànn ngir sama jëmm ji. ndax lan déggoo na ak man ndax lan liñ bëgg ci diine ji mën na ko liñ bëgg ci développement ci réew mi mën na ko ay jikkoom critères yi mu doy na. Hmm. nit jiite réew. waaye am na ci yoo xam ne ku ko gis ci nit tànn ko bu ëllëgee bu lay dóor a ko dumaa ko fudd. neel pat ndax yaa ko tànn. bul mere ki mere sa bopp. waaw kañ mereel sa bopp yow mi ko tànn. moo tax balaa kenn di jël kartam di ko voteel nit na xam nit kooku. kan la d'abord. ndax jub na booboo jiitu. jub na xam nga yii sax imaam. Hmm. buñ toppoon charia kenn du ko xëccoo. déedéet moom wan na la ci commencement bi yonent bi dafa ne lu waaye di xëccoo bu leen ko ko jox bu ko jox ndax matu suñu mbir yu ko ku laaj bu ko jox ku laajul nag tànn leen ka ca gën ngeen jox hmm. waaye comme picc xoola ñëppay laaj ñi mën a ngi laaj ñi mënut a ngi laaj ñi xam a ngi laaj ñi xamut a ngi laaj léegi nag yow ci biir ñii laaj Sénégal nga dëkk hmm. fii ku fi baax rek xam nañ ko de ah, xam nañ la ku fi bon it xam nañ ko de ah, xanaa kañ topp li ma waxoon rek bakkan yi rek <laughs> ak yaa ma neex laa ah. laa jab dosis daan wax ne kenn ku nekk ci ñun li la neex ak li neex ki la neex waaye li neex yàlla kenn xoolatu ko kenn dëgg la loolu fa lañ toll tey waaye balaa kenn di jël responsabilité voteel nit hmm? d'abord na nga xam ki ngay voteel kan la tigi benn mooy première responsabilité hmm. est-ce que jikkoom baax na hmm. bu buñ ne jikkoom baax na mooy mel ni yàlla bëgg nit mel ko est-ce que mel na ko mm-hmm. est-ce que du workat mm-hmm. est-ce que du fenkat mm-hmm. est-ce que du sàcckat est-ce que du njaalookat bàkkaar yu mag yii est-ce que fesalu ko est que fesu ci biti ba lobi fesalu ko ci biti ba ñëpp xam ne kii ci lobi sàngam la bokk yooyu yëpp critères yooyu yëpp da nga koy door a xool ba pare ndax jikko moo jiitu boo xoolee jikko ji ba pare nga door a xool nag xam-xam bi innama yaxsha allah min ibadihi al ulama yàlla nii ñi may ragal dëgg-dëgg nag mooy ñi ma xam nga xool nag xam-xam bi est-ce que kii buñ ko dënkee réew mi fi ñu bëgg réew mi yegg dana ko fa yeggale nga tànn ko ci seen biir <laughs> boo xamee ne kii nag xam-xam baa ngi fi nga xool ndax njub gaa ngi fi ndax boo amee xam-xam te juboo mooy premier aaya bi ma fi tudd rek ci suratul juma kamasalil ximeer yasul yaxmilu aswala mu ngi mel ni mbaam mu yenu mi yenu ay téere Alaaji Abdou Aziz nag daan na wax ne mbaam mu yenu ay téere du ca amee lu dul diisaay ak yet ak yet waaye du ca am mukk chèque bu muy tuusi su ko defee nag ñu xool xam-xam bi xool njub gi door koo tànn kooku nag boo ko tànnee yaakaaruma ëllëg dina la war soo ko sànnilee sa xob sa kart yàlla du la ko laaj ëllëg waaye boo ko tànnee ci par parloo yaa ma neex mooy defar sama poche su fi toogee ma baax su fi toogee ma jag su fi toogee ma defaru su fi toogee dina ma jox poste sàngam day sot mbir sax yàlla day soppi mbir loolaay tax nag bu toogee nga mer. waaw mer nag parce que àndoo nag moom ngir yàlla bu toogee jox ko keneen. yàllaa koy def ci xolam ne ko kii du nitu dara jox ko kële. bàyyi la nag nga naan jaam la jaam la jaam du nitu dara. ba may ànd ak moom boobu amul tus da nga àndutoon ak moom ngir yàlla. yàlla bu bàyyi ko ba mu fan nag mu ne ko seetal ma kële nga xam ne ma sama jëmm jee ko tax a jox. waaw nga ñu koy papa Guèye joxal ma ko. jox bàyyil man Guèye bu ma ko ko jaam moom kay kii. bu ko defee nag rajo plateau yëpp di nga fa toog. fa nga doon jaam la ba may ànd ak moom amul dara. xamul dara mënul dara ma ànd ak moom tey ba mu accéder au pouvoir mel ni xamatuma. fekk àndul àndu leen woon ngir yàlla. waaw àndu ngir yàlla yàlla nee na day sax dàkk te du dëñ. mu ne waaye ànd ngeen intérêt mu ne intérêt bi bu jeexee ngeen tojantey bopp allahu akbar loolu rek a fi nekk su ko defee nag kon tànn dañ koy xool ci lañ toll nag lañ toll li may ñaan ñëpp daal mooy hmm. nañ xool candidat yi ki ci gën a bëgg Sénégal benn ñëpp ko nañ Sénégal déedéet ah am na ñoo xam ne boo xoolee seen kanam yi sax nga xam ne ñii bëgguñ Sénégal barke salaatu faati seen xar kanam yi rek boo ko xoolee man dama ñii ñii lu eh. ñu yabee sax beneen beneen dañuy. non non am na am na am na xam ne wax dëgg moom. waaw dëgg yàlla moom ñu baal ma nag <laughs> sous-estime ma kenn waaye am na ñoo xam ne wóor na ma wóor yàlla ne bu ñu xoolee seen bopp taxaw ci seetu seetu <laughs> ba ba ba ba une minute rek ñu seetu ko. war nañu xam ne bu ñu xar kanam yu rag yu ragal da yoo xam ne moom moo ne boo kii boo dee yoon ci àll boo ne bi bi ci des nag <laughs> nañ xool ki ci gën a ragal yàlla. xool ki ci gën a bëgg réew mi. loolu noo koy xamee tam. ah non mandarga ci kanam lay feeñ yow tam. siimihum siimihum fi wujuhihim yàlla ñaar yëpp wax na ko de. est-ce que. yuraful mujrimuna bi hmm, siimahum hmm. gis nga. waaw xool nga waxin bii. waaw bi siimahum. Hmm. yuraful mujrimuna bi siimaahum xam ngeen siimaahum nag siimaahum la jiital siimaahum fi wujuuhihim xam nga lu tax eh, alxuraan dafa garaaw ustaas xam nga siimaahum boo ko nee jàkk rek xam ko moo tax mu ne siimaahum fi wujuuhihim mu ne jullit piir boo ko nee jàkk rek xam ne waa jàngi ngi nii ndax li ci xol bi mooy bëtt ñëw ci xaw kanam bi bët lu bët la tudd bëtt mooy gis loo xamante ne nii euh, li ci xol bi mooy reflété wu ñëw ci kanam gi faw danga koy xam moo tax yàlla ne siimaahum tëb rek ne siimaahum mm-hmm. siimaahum seen màndarga siimaahum seen siiñ fii wujuuhi mu ngi ci seen xar kanam yi xanaa gisu leen ko ñu ne ko bàndi nag mu ne yu arafu foog nga jëflanteeg moom <laughs> door a xam xam mu ne yu arafu yaa ngay xamee almujrimuuna bàndi yi bi simaawum ci seen xar mais foog nga jëflanteeg ñoom ba pare kële nag laajul jëflante warkat warkat ba tamit day sew te du taxaw <laughs> day def nii rek day tur <laughs> loolu maa leen ko jox comme misaal xool leen gaa yi koo ci gis pere bët bi di daw rek warkat la <laughs> warkat bë pere bët bi du taxaw man maa yooyu yëpp ay signe la signe signe signe psychologique la très sawaaram mbokk téléspectateurs yi laa bëgg tàggu ñoom waaw looy looy tàggoo. waaw ñu ngi jéggalu ñëpp nag yii yëpp saa ma ci dugal rek waaye njëriñ rek. ay njëriñ dong la njëriñ rek la. Ah, te yaakaar naa ni njëriñ rek ak takki ne wante rek. lañ ci jublu. waaye yii nag li ñuy takkine takkine yëpp ci dëgg lañ ko teg. dëgg la dëgg la ndax li ma fi wax yëpp alquran la siimaahum fi wujuhihim <laughs> min asari sujud min asari sujud dëgg la dëgg la zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fi l injil waaw ka zarin ka zarin axraja shatahu fa aasarahu fastawiqa ala suuqihi hmm. yujabu zuraa wa yaxiisu bihum alkufaara waada allahu alladina amanu minhum maxfiratan wa ajran azima mm-hmm. loolu alquran la du sama wax bële it mu ne yurafu almujrimuuna bi siimaahum nee na bandi yi pire daal mën nañoo xool ni kay candidat yi na ngay xool ñu bëgg réew mi waaw kay ñu jub ñu ragal yàlla ka ca gën a bëgg réew mi mm. gën caa jub ragal yàlla nekk ci moom tànn leen kooku hmm. am na ñuy wax xam-xam la am na ñu ci waaw xam-xam déggoo li ma hmm. ku yaakaar naa ne nit ñemewut yàlla di xëccoo réew mi te xamoo dara bastatul fil ilmi wal jismi waaw ah, kay wa zaadahum bastatan fil ilmi wal jismi waaw kon loolu yaakaar naa physiquement moralement mu nga fa ba pare moo tax. dëgg la ndax ñiy xëccoo réew mi yëpp nag gisuma ci ku ci amul baccalauréat. dëgg dëgg te baccalauréat rek ku ko am mën ngaa xëccoo réew mi nag dëgg dëgg. macha allah baccalauréat képp ku ko am rek mën ngaa xëccoo réew mi waxuma la ak supérieur yi nag. te ñiy xëccoo réew mi yëpp gisuma ci nag ku ci amul niveau. Hmm, amoo ngay wax ñoom ñëpp a ko am. am na ci ñu am jaar-jaar yu baax waaw kay bi ci des nag mooy ci biir boromi xam-xam yi nag hmm. innama yaxsha allaha min ibadihi al hmm. hmm. yàlla ne dëgg-dëgg ñi may ragal nag boromi xam-xam la ñuy doon dëgg la kon nag ñu tànn ña ci gën a ragal yàlla gën a ragal yàlla ñu ko ka ca gën a jub ñu tànn ko ñetti critères yi rek la am Sénégal xool leen ki ci gën a jub xool leen ki ci gën a ragal yàlla xool leen ki ci gën a bëgg réew mi xubbul watani min al imaani salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sërib jërëjëf am na solo hmm. yaatu na vraiment ubbeeku nga hmm. wane nga ni dëgg-dëgg xam nga li xew ndax hmm. nii la jamono jamono dafa am nu muy doxe boo gisee rapport yi fu ñu lal commencé def seen baafuli xale yëpp daw dëgg du leen uh-huh. te imaam mën a teg fii ci jàkk ji kenn du ñëw ngay conférence kenn du ñëw. di tafsir sax. di tafsir doo gis kenn doo fa gis kenn parce que niveau bi ñu bàyyi alxuraan ji. Hmm. alxuraan dafa passé foofu. waaw il faut que nit ñi déplacé wu fekk nit ñi seen dimension. Hmm. wax ak ñoom ndax alxuraan lépp a ngi fi. Hmm. waaw léegi nag loolay mbir mi daal. tey tey mooy li nga développé. Euh, lu kenn man ñaar ko daal. wallaay wallaay wallaay tey macha allah. tabaarkalla borom xam <laughs> nga baax vraiment kontaan naa mbokk yi ci ndigalu Oustaz Alioune <laughs> mbay ñu ngi leen di jox rendez mooy dig daje waaw talaata bii di ñëw mardi macha allah ci même euh, ci même waxtu wi mm-hmm. euh, quinze waaye lu jiitu talaata nag incha allahu mm-hmm. ñu ngi leen di jox rendez-vous altine mm-hmm. ci quinze heures moom mii moo fiy toog te ku ne xam na ne borom xam-xam la ku ne xam na ne yàlla dimbale na ko ci xam-xam ak woyof ak mbaax ma di leen ñaanit euh, daaraam jële yéen ñi may seetaan surtout yéen ñi ci diaspora bi maa ngi leen di ñaan mm-hmm. daara oustaz Alioune Mbaye bala ca taset mu fegoo ko tafsir Abdourahmane Gaye sama mos ndeysaan mook Chérif Maamin mm-hmm. daara jooju mm-hmm. daara du doy daara wallahi daara du doy dëgg la bu téeméeri junni daara amoon dendee sax du doy ndax waaw kay xam nga lu école publique yaa ngi nii doyul école privée yaa ngi nii doyut waaw kon naka la daara di doyee kon daara du doy kon maa ngi ñaan dee ñaax ñëpp ci daaraam ji mm-hmm. na ci ñëpp dugal seen loxo fi mu ne yegg na ci waaj a kuule te ku ne xam na ne kuule yombut dafa metti mm-hmm. te taalibe taalibe rek la man nag maa koy yelwaanal yelwaanuk taalibe ak moromam mm-hmm. waaye nag di ñaan ñëpp ku am ciment ku am feer ku am suuf ku am béton waxuma béton bu weex bi nag bu ñuul bi. bu bu ñuul bi laa wax de kuy ñaan da ngay ñaan li nga bëgg. bu fa kenn indi béton bu weex bi ndax béton bu weex bi mooy waral dal yi gaaw a màbb. Mm-hmm. ndax béton bu weex bi day jël ndox. Mm-hmm. day naan ndox. Mm-hmm. bu naanee ndox nag ba màndi mooy waral mu ne mëlëb ci suuf. bu dee beton bu ñuul bii ñuy defaree goudron bi tali oto yi di daw. booboo baax na. boobu moom du naan ndox te danaan kekk mm-hmm. kon boobu laay ñaan ku ci am yóbbul ñu ko taset ca daaraam la ku am feer bu baax bi nag laa waxit nag waaw feer bu baax bi feex bu feer bu baax mm-hmm. ñu ngi lay ñaan nga indil ñu ko taset mm-hmm. ku am suuf indil ñu ku am sima indil ñu ku mën a wéev wéeval ku mën a orange money orange money ku mën a western westernal yéen ñi ca bitim réew kon nag numéro baa ngi ci suuf di daw 77. waaw 635. 635. 10. 10. 21 21. am na wéef am na orange mu ne. 635. 10 21. oustaz Alioune Mbaye mii toog moo ngi nii ci écran bi di daw ku bi am na wéef am na orange mu bu dee yéneen ñi ci diaspora bi nag boole leen ci cent 00 221. Mm-hmm. wala plus 221. ndeysaan su ngeen ko ci defee. am na sa taalibe bu baax bu nekkoon Paris. waaw bi nga ko fa waxee. wallaay ndeysaan. yóbbante woon lu xawoon takku. mu ngoo ka ca Paris nag. waaw te yóbbante woon oustaz mu ngi nii toog wax na ko fii. Mm-hmm. mu ngi lay sant di la gërëm te boo mënee dolli ñu jël. tubaar waaw tabaarkàlla wàññiwul dara. ndax yiw du doy. waaw El Hadj Abdou da daan wax ne. tukki boo xam ne xamoo distance ba ñaata kilomètre la. Ah. mu ne loo am ci yóbbal na ko xeeb. mu ngi ko fiire woon ca woyam wala bu bëggoon lool. Ayaazal Jalaali ndeysaan kon nag <laughs> maa ngi tàggoog yéen fii in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf macha allah si kon nag Abdou Aziz ba mardi incha allah waaye lu jiit loolu lundi dinaa ñëwaat ak yéen ci même heure même place imam Serif incha allah daa ñëwaat yeneen question mm-hmm. ak yeneen i waxtaan yoo xamante ne ni yu jamono bi laaj la. incha allah jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا